bokk yi yéen ñu ni teewlu Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo amati leen mbégte di jàkkaarloo ak yéen noonu la ñu amee mbégte tey jii si entretien spécial di dalal maître Ngagne Demba Touré maître Ngagne Demba Touré nekk coordonnateur euh, Pastef euh, Grand Yoff waaye tamit euh, nekk membre de la haute autorité de régulation du parti Pastef ñu am mbégte lool di ko dalal tey jii maître man lay nuyu bàyyi la nga noonu te ñu nuy teewlu. waaw Diallo maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci invitation bi. di nuyu sénégalais yi ñuy suivre ci biir réew mi ak ci bitim réew muy sénégalais de la diaspora euh, di saisir occasion bi pour ñaawlu li sénégalais yi di dund à l'étranger en général mm-hmm. et en particulier li ñuy dund en Tunisie mm-hmm. mu nekk des agressions barbares des attaques yoo xam ne elles sont indignes de l'humanité mm-hmm. à de des temps modernes mu nekk loo xam ne nag bu fekkee am na mun nañ ci def ñaari jàngat première bi mooy ñun ci suñu bopp ñun am na nu ñu mel noo xam ne tax na fépp ci àdduna bi bëriwul ñu ñu jox respect deuxième bi mooy suñu manque de fermeté hmm. de nos diplomaties et notamment de nos chefs d'État de chefs de gouvernement et ministre des affaires étrangères hmm. loolu moo waral tey ci àdduna bi ñu mun ñoo def yenn yi mais am na loo xam ne xalaatuñu yenn nationalité yi ñu fa jugee. Hmm. ñu leen koy def ci yenn dëkk yi. Euh, kon koy mën na si dem directement c'est que question boobu dama ko beraloon si biir waxtaan bi mais comme dugg nga si mën na see dem démb gis neen euh, le ministère des affaires étrangères génne ab benn communiqué euh, di wax ne ba démb fi ñuy waxee amul benn situation bu xaw am njàqare boo xam ne nii. nemmeeku leen sénégalais bu ko si am wax na tamit teg neen benn cellule de crise am na numéro vert boo xam ne ni si la ndaw yi war a woote wala woote ku si am jafe-jafe rek dinañ jël toutes les dispositions yi pour ku bëgg a ñibbi si euh, loolu tamit bi nga xoolee communiqué bi ndax nekkul communiqué bu war a mën a dalal xelu sénégalais yi. d' abord c' un communiqué tardif. Mhm. parce que événement yi am na ay ay ay fan wala ay semaine ñu doog a dégg ñun suñu autorités yi nga xam ne ñoom ñooy les autorités compétentes ci doog a wu donc loolu njëkk nekk problème mhm. beneen bi mooy. affaire bi du ci ay communiqué ay mesures fortes qu'il faut prendre la tey ñaata sénégalais ñoo nekk à l'étranger dund ci ay prison ci ay conditions yu difficiles. Mhm. parfois mais gis nga li xewoon Turquie ay sénégalais yoo xam ne dañuy dund injustice assistance juridique wala judiciaire bi ñu leen war a defal du ñu leen ko defal loolu mooy situation bi nga xam ne ñooñ moom la ñuy dund à l'étranger beneen bi mooy cas spécifique bu Tunisie au-delà des de des des numéros verts et cetera problème bi mooy kilifa boo ko nekkee ci réew. dafa am ay canaux officiels yoo xam ne fa ngay jëlee information muy chancellerie muy ambassades yi et cetera mm-hmm. mais au delà de ces canaux officiels da nga wut ay canaux officieux mooy association yi nga xam ne moom la mm-hmm. Sénégalais yi nekk dans leur diversité nga mën a am l' en temps réel mais de façon diversifiée parce que dafa am lu ñu wax la rhétorique de l' optimisme officiel mooy ki nga xam ne moom nga fi teg muy ndawal buur muy ambassadeur di préfet du sous préfet di souvent communication bu lay rassurer rek la lay jox mais yenn information yi ngay mën a jot ci population yi ngay am ak ñoom contact direct te accessibilité boobu sax ñi nga xam ne ñooy représentant diplomatique yu Sénégal à l'étranger sénégalais yi duñ ko mën am si ñoom. Hmm. donc yooyu mooy véritable problème yi nga xamante ne tant que réglé wul yii ñuy am yëpp c'est pas des communiqués laconiques qui vont hmm. régler les problèmes. est-ce que nekkul ne mbirum diplomatie wu Sénégal dafa am loo xam ne ni dañ koy liggéey si suuf duñ koy fësal lool parce que diplomatie dafa dafa dafa làmboo loolu et puis xoolee président Macky Sall ba tey am na muy doxalee si wàllum diplomatie. Euh, ñu ngi fàttaliku mbirum Covid 19 ñaari situation yi du benn damay joxe rek misaal. Hmm. mbirum Covid 19 bi muy doogaa euh, jug fële na la sa Chine. il question de rapatrier euh, ndaw étudiant au Sénégal yi nga xam ne nekkoon foofu noonu sa Wuhan mais dañoo ne woon foofu noonu président Macky Sall dafa jëloon décision ne que da leen di bàyyi foofu ñu encadré leen ça avait suscité benn tollé mais gis nañ ne à l'arrivée président Macky Sall option bu mu jëloon option bu baax la woon euh, bii nii tamit situation yi du benn ah, mais gis nañ aussi que am na communiqué naam boo xam yéex nga kaa gis yéex nañ koo gis waaye ndax amul benn travail bu ñuy def ci suuf boo xam ne nii euh, bo mu ngi tax ñuy suivre de très près la situation des Sénégalais foofu et puis les mesures nécessaires yi mbir yi laaj dinañ ko jël. bon sur le plan euh, de la la gestion de la situation. Hmm. c'est-à-dire xam nga booy régler problème dafa am mm-hmm. ay mesures yoo xam ne en nga koy jël mm-hmm. c'est-à-dire mooy les mesures préventives mm-hmm. est loolu jël nañu ko c'est-à-dire ñun nan nañu mel ba ñu ñeme ñoo def lii xam nga a tàmbalee loolu mooy ne un citoyen américain ñeme nañu ko def loolu loolu ñu def loolu tunisien yi def def def citoyen américain def africain yi est yaakaar nga ne quel soit les conflits yi am entre Maghreb arabe ku xam Maghreb arabe entre Algérie ak Maroc seen i conflit entre Tunisie Libye parfois seen ñàkk juboo est-ce que xalaat nga ñi jël ressortissant wu dëkk yooyu def leen loolu loolu mooy en amont sur le plan préventif maintenant nag dans la gestion curative de la situation li ëpp solo mooy ñam ña fa nekk est-ce que bëgg nañu jugee foofu wala bëgg ñu jugee foofu bu fekkee bëgg nañ fa jógee il faut organiser le rapatriement dans les meilleurs délais comme ni ko Côte d'Ivoire defee comme ni ko Burkina defee comme ni ko Mali defee mhm. je pense que loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy invité autorité mais li ëpp solo mooy mel noo xam ne à l'international mhm. da ngay peser ñi mën la respecter d'accord léegi maître dañuy <laughs> delluwaat si ni ñu bëggoon doxalee euh, émission bi euh, le 21 septembre si leen defoon suñu première émission defe naa na si émission yi nga njëkk def wala bi nga njëkk def mais tey jii euh, motagul motagul at ñu gis ne mbir mi dafa gaaw Euh, euh, ndax xaaroon nga ne euh, fii at quelques mois di nga am ampleur bii nii si wàllum si wàllum politique. bon mënu ma ne xaaroon naa ko et mënu ma ne sax ampleur am na c' est vrai que comme li nga wax yow yaa ma rappelé date bi sax mais c' je pense que c' au mois de septembre. oui fii moo nekkoon sama première émission. Mhm. Mm, diggante bi j'ai fait beaucoup de plateaux au-delà des plateaux man je pense que li ëpp solo mooy les activités politiques yi nga xam ne moom la ñuy mëne sur le terrain parce que médias yi pour dem. communiquer rek la. Mhm. mais li ëpp solo mooy la base lan ngay liggéey après communiqué ko dans les médias mais bu fekkee am na lu ñu ñu jàpp ne lu salutaire la wala lu rafet la je pense que Pastef nañ ko war a remercier parce que Pastef mooy ñi nga mooy parti bi nga xam ne moo initié beneen façon bu ñuy defee politique Sénégal mooy li ñu yàgg wax une opposition documentée et argumentée benn ñaareel bi mooy Pastef mooy parti bu tijjeeku boo xamante ne à chaque fois mhm. dañuy identifier ay profils di leen yóbbu donc euh, devant la scène médiatique ñuy communiquer ak sénégalais yi ñu ci bëri ci sénégalais yi di ci am fierté di ci am di ci am kontaan di ci am satisfaction boo xamante ne c'est une satisfaction bu ñuy manifester partout donc bu fekkee am na lu ñu ñi gis ne lu rafet la wala lu baax la ci communication nañu jàpp ne le mérite revient mm. à Pastef les patriotes et notamment au secrétariat national à communication donc bi nga xam ne El Malick Ndiaye moo ko jiite. et qui fait un bon travail. d' accord ampleur li tax mu utiliser ko amaana bu ñuy duggee si biir émission bu baax baax dinaa dinaa leeral la moo tax mu utiliser baatu ampleur euh, mais sa engagement politique. Euh, parce que aussi euh, ndaw nga di doogaa dugg ci administration ndax bii mooy sa administration sa mm, sa engagement politique bu njëkk walla ndax jotoon nga militer si benn parti politique doogaa tàbbi ci Pastef bon xam nga engagement politique y a deux mm-hmm. dafa am engagement politique boo xam ne c'est non partisan. Mm-hmm. c'est-à-dire les questions de politique publique daf lay ñor. je pense que loolu depuis 2015 maa ngi koy def c'est-à-dire depuis 2015 néew na ci Sénégal ay marches yu ñu fi yu yu ñu autoriser comme yu ñu autorisé wul yoo xam ne participé wu ci. notamment ay marches c'était les marches contre le franc CFA. Mm-hmm. marche bi nga xam ne dañu doon ñaawlu Charlie Hebdo li fa xewoon. ak Euh, caricature yi ñu defoon ci yonent bi. Mhm. loolu janvier la woon. Mhm. donc boobu laa mu commencé am une conscience politique boo xam ne xale laa boobu. mais maa ngi commencé gëstu ci politique bu c'est un engagement politique parce mhm. la commencé. très jeune quand j'ai commencé découvrir le discours de Pastef notamment bi ñu daxee le président Ousmane Sonko impôt domaine. en 2016 ma commencé ko déglu en ci laa épousé donc son projet en 2017 lors des législatives ma jàppale ko sama koñ ñi ma xam. boobu yaa ngi université wala nekkoon boobu j'étais en licence 3. d'accord donc mais comme je devais terminer ma licence maa ngi woon di préparer benn mémoire ak benn rapport de stage donc j'étais très occupé mais dama doon jël photo di envoyé ñi ma xam samay connaissances j'avais même demandé à des personnes jox ma flyers ma ñëw euh, distribuer ko et cetera bi législative yi jàllee nag fekk man pare naa sama j'ai pris la décision de m'engager à Pastef donc depuis 2017 laa nekk à Pastef di militer en tant que militant donc loolu li muy wane mooy mhm. au-delà de ñi ngeen di gis ci plateau yi xam nga man yaa ngi wax ne 2022 septembre 2022 nga may doog a découvrir mhm. ñu bëri ci sénégalais yi il y a 3 mois 4 mois nañu ma découvrir mais li ëpp solo mooy Pastef juróomi at yi juróom wala juróom benn at yi ma fa nekk est-ce que maa ngi doon liggéey wala liggéeyuma te partout au Sénégal mhm. il y a des militants qui font de la politique de façon désintéressée ñoo xam ne da nga leen gis ñi ay profil yoo xam ne am nañ compétence bi am nañ expérience bi am nañ probité bi boo leen invité ñu dem ci média ñoom ñooy bañ moo tax le frère Ousseynou li a l'habitude de dire Pastef ñiy dem ci plateau yi ñun ñooy saraxu Pastef et c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire il y a mm-hmm. des militants qui font un excellent travail bi ñuy abattre à la base soxlawuñu fuir derrière derrière les caméras ou derrière les journalistes mais li ñuy liggéey ñu ngi koy def la base ba léegi nii mm-hmm. abandonné wu ma sama activité de militant à la base démb rek maa ngi woon Grand Yoff def samay activité mais mm-hmm. au delà de Grand Yoff département Dakar bi nga xam ne fii nekk mm-hmm. ak sur le plan national fépp fu ñu ma invité je fais mon activité politique parce que Pastef dafa bëgg a rompre benn façon def politique boo xam ne Sénégal mm-hmm. da bàyyi ba élection ñëw nga dem ne Sénégalais xëpp leen xaalis pour ñu voter la mais ñun dañu bëgg politique nga bon li tax ma adhéré Pastef bëri na mais li ci ëpp solo mooy Pastef dafa ñëw répondre à mes aspirations parce que comme li ma la wax man marche yi ma doon participer c'était des marches contre le franc CFA yu ci ëpp ou la coalition non aux APE donc euh, de façon modérée modeste man maa ngi woon ci biir di participer ci manifestation yi en tant que citoyen buy yëg ne dara xew na ma dem fa Pastef bi mu ñëwee j'ai vu un discours boo xam ne il n'est pas anti-français ou anti-occidental mais c'est un discours anti-impérialiste néewoon na wala bokk mosul am un acteur politique sénégalais. Mm-hmm. amoon na sax mais de façon assumée claire clarifiée taxaw ne moom d'accordul ci franc CFA d'accordul ci APE bind ko wax ko ak yeneen question yoo xamante ne jàpp naa ne képp koo xam ne da nga bëgg a falu rek soxla lobby yi lobby étranger yi fal la ay puissances étrangères financières la li ci nekk ci yombal pour nga jot ci nguur. nit bàyyi fi loolu yëpp taxaw nag daal di jël ay engagement yu ferme devant le peuple sénégalais je dis que li c'est la politique autrement deuxième chose mooy bi ma gëstuwee président Ousmane Sonko dama gis ci moom ñaar bi si jiitu mooy un discours politique boo xam dafa nouveau mooy nit ki buy wax ne jàng bi doxut da koy documenté wax ne lii moo tax jàng bi doxul su ne économie bi doxul day wax lan moo tax transformation structurelle de l'économie amut lan moo tax industrie amut te loolu mooy accès un PSE. voilà muy benn mais nit boo xamante ne parcours am daf ci wane set ba ma duggee Pastef aussi aw ma ci déception xam nga mën nga dugg avec des vœux nobles nga dugg am ci déception mais ba ma duggee dama gis parti boo xamante ne man militant bi man maay financer le parti su ma cotiser wul à la fin du mois 1000 francs wala 2000 wala 5000 francs mhm. parti bi du marché Lacoste bu may sol du leader bi moo ma koy def. mën nga nekk ci parti bi quatre ans cinq ans doo mus a xam président sax jéem a lijjanti pour xam ko. boo ko gisoon ba photo ak moom occasion la rek mais en réalité moom personne am intéressé wu la. mais li la intéressé mooy le projet moo tax Pastef à chaque fois on parle de projet. te loolu moom ma dugaloon ci Pastef te loolu maa ngi gis lu ko raw ci biir. te tant que loolu mu fay def je me ba dernière goutte de mon sang pour que la pour que le le projet de Pastef réussisse dans ce pays. projet bi dina si ñëw euh, si ce discours dañuy sentir ne. Euh, juriste bi nga doon euh, da si feeñ tout naturellement euh, dinañ sentir ne kuy gëstu si wàllum Congo si loolu day feeñ ce discours mais ce discours aussi yenn saa dañuy gis ay références coraniques loolay tamit lan moo tax parce que ay hommes politiques yoo xam ne nii jàng neen alxuraan mais du ñuy bëgg a du si référé wu. Hmm. parce jàpp dañuy jàpp ne c'est un terrain assez glissant. Hmm. mais lan moo tax yow yenn saa ñu lay gis ngay référé si ay références coraniques. parce xam man alxuraan laa am c'est-à-dire ku liir benn livre cent pages. Mhm. fekk fa ñaar ba ñetti citation ci auteur bi loo xam ne daf la marqué. Mhm. sooy argumenté da ngay convoqué citation yooyu noonu. oui nest pas. Mhm. nit day convoqué Karl max man am na lu bëri lu nga xam ne Karl Marx dafa ma ci daf ma ci convaincre nit day convoqué ab sëriñ nit day convoqué un homme d'affaires wax wenn wax bu am solo. nit day convoqué un acteur politique un chercheur benn sociologue bu wax benn wax de la même façon alxuraan dama gis ne. Euh, li fa nekk ci xam-xam yaatu na ci loo xam ne nekkul julleek woor kese moo ko tax a jug mais juste dina orienter nit ñi si ni muy taxawee ci société ma jàpp ne lu am solo la base la aw ma complexe parce que def naa formation bi yàlla may ma chance ma xam ma xam ci tuuti xaw ma ci lu bëri donc c'est normal ma koy convoquer dans l'espace politique te jiituwuma ci mm-hmm. am na ñeneen ñu ko yàgg a def mm-hmm. mais li am solo mooy nit ki bu koy def bu mu ko def pour manipuler nit ki bu mu ko bu mu ko def pour xool lu ko ci neex mu def ko mais bu koy def na ko def de façon naturelle. Mhm. te par exemple verset boo xam ne da nga koy convoqué ko convoqué ci contexte loo xam ne collé na ak ngay wax. te mhm. boo ko waxee mu nekk loo xam ne kenn du ko mun dindi. Mhm. mais nekkul pour manipuler pour jaay ne xam nga alxuraan wala mën nga loo xam ne nit ñi mënuñu ko en réalité c' est c' am na am na risque euh, yaa ngi xam ne ñu si jiitu woon euh, ku mel ni euh, Idrissa Seck. fàttaliku neen fii. Euh, Bakk ak Makka indoon na fi coow bu rëy rëy rëy rëy mhm. si diggante moom ak dem si yàlla euh, Sidy Lamine Niass ak euh, Bamba Bamba Ndiaye ancien ministre loolu moom mooy le terrain glissant bi ñu di di ragal est-ce que yaa ngi suuraale aussi wàllu non am dafa am différence mhm. xam nga Makka ak lu tax mu jur coow mhm. mooy la l'acteur politique dafa dugg ci diine wax gis-gisam ci benn fait religieux wala benn débat religieux est-ce que alxuraan dafa wax Makka wala alxuraan Bakka la nit ñi Kaaba ga nañ war a dem ziar wala mur des lamentations nañ war a dem. Mhm. loolu benn débat religieux la man loolu du ma ci mës a dugg. par exemple charia ci lislaam ni muy doxee bëri lu nit ñi mën a débattre ñoo xam ne. Mhm. courant yu bëri ñi dañuy gisee li ñi gisee la. absolument par exemple booy julli da aj sa loxo da ngay wàcce sa loxo genre mhm. demee noonu. xam loolu c'est des débats. mais loolu du ci mës a dugg en tant que acteur politique. parce que loolu ko dans l'espace politique. maintenant nag su may expliquer la présomption d'innocence. fekk au début d'un débat boo xam ne fii nga ko organisé woon avec Thierno Diop oui je m'en rappelle sur le terrain juridique droit laa doon wax mhm. Thierno Diop ne ma non maa ngi koy saluer de passage grand bu baax la ne ma non le débat n'est pas que juridique le débat il est moral oui ba mu dugalee morale la dugal ay tabou ak ay interdits sociaux loo xam ne c'est le c'est les règles de la morale courante c'est les règles de la de la morale mhm. de boo duggee ci morale sax diine yow dala yow Mm-hmm. en tant que musulman. Mm-hmm. ngay wax ci loo xamante ne. Mm-hmm. nit ki amatul amagul lu ko condamné li wane ne moo ko def. si laa ko in convoqué benn aaya bu nekk. suñu yaay nuur voilà indi ko benn histoire pour wan ko ne ko même moral dalaa tere yow lii nga wax ci. daal di convoqué la préson présomption d'innocence. analyser ko à de ce que je disais. te loolu je pense que dañu ko war encourager dans l' espace politique sénégalais dañ ko war a encourager dans l' espace politique nit ku nekk il est produit de son parcours il est produit de fu ñu ko yaree. fan la jaaree daara nga njëkk def soogaa jàng wala man alxuraan laa njëkk jàng ba pare daara su ma mokkalee alxuraan pare ma dem jàng arab franco arabe. Mhm. donc di boole arabe ak français continuer di jàng arabe ba sori ci lool sax doo ko delluwaat jàng français. ba am ci aussi ay liggéey noo si njàngum tubaab bi. waa bon man je pense que ça je dois amee à je dois ça à mes parents. parce que généralement ñii di def loolu am na ñu ma si xam dañuy xaw a tardé tuuti si njàngum tubaab. et c'est normal c'est compréhensible. je pense que man nee naa loolu samay parents laa parce que quand même bi may jàng arabe di ci sori yegg yenn niveau yi. Mhm. boobu français aussi mes parents ont organisé mon rattrapage. Mhm. c'est-à-dire sama sama suñu kër dama fa amoon ay cours à domicile ci mathématiques ci français donc loolu moo ma permettre awma ci benn retard et aussi je pense am na yoo xamante ne nit ki du sa njàmbaar. yàlla moo lay tracel yoon mhm. mais am na loo xam nit ki du sa njàmbaar parce que yàlla moo la choisir ay parents yoo xam ne ñoom ñoo mhm. décidé ne yow parcours bi nga war a def mhm. pour préciser aussi Sénégal ñëpp sax ils sont le produit de ce double système parce que boo jëlee ñi ëpp ci sénégalais yi bi ñu juddoo damuñ daara de mais mercredi samedi dimanche am nañ ko leen jox cours à domicile pour ñu am moyen wala ñoo xam ñu ngi ci daara bopp koñ yi di ñi nga xam ne tey jaar nañ ci daara yi am nañu chance su xam alxuraan mën dara alxuraan boobu war leen former ci ay valeurs nangoo liggéey solidarité mm. oyof hmm? mm-hmm. mën a muñ waaye ñeneen ñi nga xam ne jaaruñu daara aussi ñi ñu topp ci ay kilifa diine ci ay imaam yi xutba ci ay oustaz ci ay prédicateur ak aussi fi ñu jokk dañ leen defaat même formation moo tax ngay gis koo xamante ne musta jaar daara mais yow mi jaar daara doo ko ëppale dara ci gëm-gëm mhm. doo ko ëppale dara boo ko gënee xam alxuraan aussi ëppoo ko valeur mhm. gënoo ko nekk jullit dàqoo ko jullit te day góorgóorlu bu baax am na sax ñoo xam dañuy dañuy dem di góorgóorlu ci déel ba yow mi jaaroon daara dañ lay raw ma waxtaan sama mu corriger ma ci loo xam ne man mi jaaroon daara donc loolu amul dichotomie entre les citoyens ñii dañuy def alxuraan dem jàngi français mhm. ñii français nañ jàng wala sax seen jàng soriwul métier nañ dem defi mais en réalité ku ci nekk yaa ngi gëstu sa diine sachant que le culte nag c'est du domaine privé oui. ça n'a rien à avec la république mhm. ça n'a rien à avec la chose publique mhm. avec l'État d'accord la moo tax bokkoo kon mouvement doomi daara Pastef non je suis membre du mouvement c'est-à-dire nekk en même membre du mouvement doomi daara nekk autorité de régulation euh, yor tamit banqaas Grand Yoff est-ce que ça ne fait pas non non en fait c'est pas des responsabilités mhm. en fait nekkuma membre du bureau par exemple du mouvement doomu daara membre simple nga daal membre simple membre simple par exemple je membre du mouvement des jeunes du parti parce que j'ai moins de trente cinq ans mhm. képp ku am moins de trente cinq ans tu es membre de la JPS je suis mhm. membre du mouvement des jeunes du parti mhm. mais mënuma cumuler ay responsabilités nationales ci yenn postes yi avec la la la avec le poste de de de responsable mouvement boobu est-ce que euh, tey jii euh, c'est vrai que euh, man maa ngi doog a gis benn parti politique bu ko defee comme ni ngeen ko defee yéen mouvement doomi daara loolu bu koy xool ndax si laïcité bi ñuy dund. Mm-hmm. est-ce que may na parti politique di am ay bànqaas yoo xam ne nii dañuy tegtaloo si wàllum benn diine constitutionnellement parlant. est-ce que mm-hmm. loolu mën nañ ko may benn partie si réew léegi yow. Mm-hmm. bañ na ko ba maanaam yow li li maître Doudou Ndoye doon wax tu n'as pas la question mais tu as posé l'équation <laughs> <laughs> c'est-à-dire yow da nga wax constitutionnellement parlant. kon donc da ngay wane ne loolu képp ku ci werante doo wax sa xalaat da ngay wax li texte yi maye. Mm-hmm. te bi ci jiitu nag mooy constitution bi. constitution bi article quatre moo wax ni. Mm-hmm. dañu interdire parti politique yi. Mm-hmm. ñu identifié wu à une religion. oui à une race à une région à une ethnie et cetera. oui parti bi nga xam ne moo naan man maay parti musulman yi. wala man maay parti catholique yi. wala man maay parti tel euh, témoin de Jéhovah et loolu nañu interdire parti politique yi. oui léegi nag loolu mooy laïcité. Mm-hmm. mooy état bi farul ci benn diine. waaw mooy l'équidistance de l'état. Mm-hmm. par rapport au au au au aux confréries aux deuxième bi mooy lan état bi ci boppam nekkul diine lay tënk pour doxal. Mm-hmm. n'est-ce pas. oui ça veut état buy doxal bu gisee ne nit ñi seen gëm-gëm lii la mu respecté ko. parce qu'en réalité la loi est l'émanation de la volonté populaire. te volonté populaire bi askan wi li ñuy bëgg seen gëm-gëm da cee am solo. moo tax laïcité boo demee Allemagne am na laïcité mais y' a parti démocrate chrétien y' a parti socialiste chrétien. Mhm. États-Unis état laïque la. France sax am na bu mu mel bu xaw a ndróog boobu. voilà am na sa journal bu tudd la croix. voilà mhm. États-Unis soo fa demee nit ki président bi day waat ci bible bi. Mhm. te pourtant état laïque la Sénégal. c'est vrai que république bu laïque la mais reconnaître nañ fi ay religion nit ñu fa bokk di tabax seeni école di jàngale seeni gëm-gëm mais en réalité ñu ouvrir ko à tous les sénégalais. Mm-hmm. soit fa bokk nit ñi di fa jàngee di am niveau bu am solo ci Sénégal nit ñi xam ne école yi franchement ay école privée yu am solo la ci réew mi. Mm-hmm. ci taxawaay ci xam-xam ci formation. on d'accord. Mm-hmm. donc ça dire que république bi il il elle n'est pas anti-religieuse. mais république bi dafay tolérer religion yi mais nag féetewul fenn mhm. léegi nag religieux bi bu fekk see politique bi kenn mënu ko bañ parce que la mooy religieux il y a le le concept de religieux au sens restreint c'est-à-dire kilifa diine bi nga xam ne dafa jiite tarixa wala mu am cër bu rëy ci benn tarixa comme jëwrin par exemple mhm. wala nit ku jiite benn association islamique bu mag mhm. kooku kilifa diine la au sens restreint ñooñu sax ci Sénégal am na si ñoo xam ne am na soit ay président wala am na sax ñu participer ci création des partis politiques mhm. dañ am na ñuy nettal ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci nettali mhm. bokk na si ñu créer PDS wala ñu jàppale PDS mhm. nit ñi gisoon nañ Serigne Moustapha Sy taxawam ci taxawaayam bu rafet ci événement yi ci alternance Sénégal ak après loolu Sidy Lamine gis nga ko mars li mu liggéey ci réew mi mars processus bu nga xam ne moo conduire à la seconde alternance au Sénégal li mu joué. Mhm. donc ñi mag ñi ci ay religieux au sens restreint sax terewuñ leen ñu am engagement politique parce que ay citoyen nañ avant tout. Mhm. léegi nag mu am religieux au sens élargi imam bi jàng jàngale religieux la wala du religieux. Mhm. Sénégal tey ñaata jàkka la am. jàkka bu nekk bu amee benn imam ak naayib kon imam yi c'est des c'est des dizaines ou des centaines de milliers. Sénégal ñaata école boo ci dem ñaata oustaz ñoo fa nekk. kon Sénégal c'est des centaines de milliers de oustaz Sénégal ñaata nit ñooy waaraati ci rajo yi ñooñu ñëpp mën nga leen boole ci ay religieux parce que dañuy porter le message religieux di di tasaare seen diine wala seen gis-gis ci diine est-ce que ñooñu boo nee bu ñu bokk ci benn parti politique wala bu ñu organiser wu au sein d'un parti politique mooy yaa ngi exclure un pan entier important de la socio de la sociologie sénégalaise et de la société sénégalaise d'où la nécessité que ñooñu moo xam yow mécanicien nga mhm. moo xam yow euh, prêtre nga moo xam yow euh, imam nga l'essentiel sénégalais nga am nga droit de ah man de profil bii nii moo ma gënal pour élection yi ñu jëm am nga droit nga ne parti bi dama ci bokk léegi nag parti bi dafa war a veiller ci respecter laïcité bi nga xam ne ci la basé woon ba créer parti politique am mooy parti bi du musa ne parce que am na mouvement de doomu daara Pastef man Pastef damay changer sama statut dal di ne désormais charia laay appliqué ce n'est pas parti bi du ne mouvement des doomu daara am na ci parti bi ba su ma defaree sama programme damay naan sama programme est-ce que méngoo na ak alxuraan waaw wala déet wala charia lay appliquer ça n'a rien à donc loolu mooy ce qu'il mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mais or ñoom ñu organiser wu en tant que benn corps social ci biir Pastef Pastef am na mouvement des cadres patriotes est-ce que après dañu naan euh, cadres rek ñoom ñooy xalaat ñi nga xam ne ñu ngi secteur informel bokkuñ Pastef am na mouvement des enseignants est-ce que dafay tax dem ba enseignants yi parce que am na mouvement des jeunes est dafay tax ñu ne jeunes yi ñoo ko moom am na mouvement yoo xam ne magi Pastef la am na boo xam ne femme est dafay tax ñu ne pourtant am na mouvement des femmes amul mouvement des hommes est dafay tax ñu ne jigéen ñoo ëpp doole ci parti bi hmm. donc hmm. mouvement des doomu daara c'est un mouvement am na mouvement des artisans patriotes boo xam ne ñu ngi koy waaj a mettre ñu ngi koy waaj a mettre sur pied hmm. donc loolu day wane ne social ci biir réew mi d'accord euh, bu ñu nekkee si siège boobu ba tey euh, am ay yoo xam ne ni Scarlett buñ ko mënee def benn benn muy d'abord baatu daawa donte ne indi woon nga si ay ay leeral mais gis nañ ne am na ay borom xam-xam yoo xam ne nii li nga wax dégg nañ ko chakawle mais am na si ñeneen ñoo xam ne ni ay borom xam-xam lañ leen jàppee euh, ku si mel ni euh, Oustaz Lamine Sall euh, nekk doom si Oustaz Sëñ Abbas Sall. Hmm. ak ki nga xam te ni moom mooy docteur Khadim Bousso moom tamit ñu ràññee ko wax ne boroom xam-xam la. ñu déggul ñu déggul dégguñu ñeneen yi hmm. si baat boobu nga xam ne ni yëg nga ko at jaamu te jaamu yàlla si ñëw mais d'abord baatu daawa est-ce que amoon na place dans l'espace politique waaw avant may wax si loolu mhm. damay commencer benn mbir mhm. c'est-à-dire man nit ku matadi laa mhm. man nit képp laa man damay bokk si ñi nga xam ne dañuy def politique mooy dañuy laaj sénégalais yi seen baat pour pour liggéeyal leen serviteur laa awuma benn rëy ci ne lépp lu ma wax ku mu neex nga def ci sa critique wala nga ne d'accord aussi. d'accord muy benn. Mhm. beneen bi mooy dina ma gënal su ma invité nit ñi sur le terrain des idées. Mhm. lu ma wax ñi ñu indi ay contre argument ñu indi ay contre argument su ma nee Ousmane Sonko li ñu ko renvoyé devant la chambre criminelle teguwul ci yoon indi ay argument juridique mhm. convoqué article cent soixante onze bu code de procédure pénale nit ñëw indil ma contre argument su ma nee. transformation structurelle de l'économie sénégalaise amul. Mhm. parce que ba léegi secteur tertiaire moo mooy tiré li ëpp ci croissance bi. Mhm. na ma nit tegal un contre-argument. Mhm. mais xaaruma may wax dara nit ñi di dagg wax ju yeggul pour sànni pour diaboliser loolu xaaruma ko woon dans l'espace politique sénégalais. léegi nag képp kum neex nga wax li nga xam ne moom nga gis ma loolu sànn ma choque pas ci li ma nekk te mooy focus ci benn projet boo xam ne man jàpp naa ne mooy le meilleur pour suqali Sénégal. dama ciy xëy suba ngoon di ci gont mhm. loolu man loolu moo ëpp solo par rapport ak li nga xam ne mhm. ay coolo maintenant mot daawa nag mhm. c'est un mot arabe nit ku nekk booy wax ci sa champ lexical ci mots yi ngay convoqué parce que en réalité ñun li ñuy wax nii wax par rapport ak lan nga jàng la bu dee olof olof nga olof mi ngi ci yow tey yow munoo ma munoo wax olof une minute te baatu français du ci dugg. Mhm. parce que da yàgg a toog ci banque français parce que français ngay liiree parce que français ngay liggéeyee. Mhm. de la même façon ki nga xam ne dafa jàng arabe ba am ci benn niveau bi. Mhm. di lire livre arabe comme ni muy liiree livre français. ni mu mën a waxee français noonu la mën a waxee arabe sinon plus. suy wax c'est normal yenn mots arabe yi di delluwaat ci waxam. te boo xoolee du baatu daawa moo njëkk a génn mais mot la boo xam ne appel lay signifier. waaw ça n'a ak fu ko nit ñi yóbbu loo dama lay liiral dama lay liiral euh, après mooy mooy indi question mooy l'article cinq bi nga xam te nii si nga doon def référence hmm. euh, bi nga xam te nii dañu naan Pastef les patriotes s'attachent à promouvoir en puisant dans les valeurs africaines positives une doctrine politique centrée sur la défense constante et patriotique des peuples dans le respect des orientations et exigences suivantes la garantie de la cohésion sociale et de l'épanouissement de tous la souveraineté le panafricanisme la solidarité internationale contre l'impérialisme la liberté des citoyens dans le respect des principes de laïcité et de pluralisme assurant l'exercice effectif des libertés démocratiques, des droits politiques, économiques, culturels, sociaux et environnementaux et garantissant la liberté de culte à tous les citoyens, la reconnaissance du rôle primordial de l'État et du peuple dans le développement économique et social durable, dans la considération de la, dans la consolidation de la nation sénégalaise, euh, la promotion de la paix et de la sécurité, la construction de l'intégration et de l'unité du continent africain et le rayonnement du euh, Sénégal à travers le monde. PASTEF, les patriotes n'excluent de euh, coopérer avec aucune organisation publique ou privée, euh, publique ou de la société civile, quelle que soit son idéologie officielle, sous réserve de convergence de vues entre les parties concernées. Hmm. laaj bi mooy fii ana jaamu nit ak jaamu yàlla. merci beaucoup encore une fois tu n'as pas simplement posé la question mais tu as posé mm-hmm. en réalité lii c'est pas la première fois may wax moo boobu noonu. Mm-hmm. te ce sera pas la dernière fois xëy na ma wax ko. Mm-hmm. parce que c'est simple. article cinq bi dafay poser la mooy doctrine politique du parti. parce que dans les anciens statuts du parti. ba ñuy wax ci doctrine bi li ñu dafa nekkoon un bu gàtt pragmatisme la waxoon c'est-à-dire bi soxlawul di adossé wu ci benn idéologie ay communisme socialisme wala libéralisme li ñu ëppal solo mooy fépp fu intérêt askan wi nekk ñu dem jëli ko mooy li benn penseur chinois wala dirigeant chinois doon wax peu importe que les chats soient gris ou blancs l'essentiel c'est qu'ils souris mm-hmm. cest dire ce que que politique bi nga war a appliquer par exemple boo waree soutenir industrie capitaux privés yi war a ñëw mm-hmm. bu rekkente ne da nga war a bàyyi ñoom ñi ñëw da koy def mm-hmm. soo waree recourir au financement étranger pour financer sa économie da koy def même su dee dañ ko taxé d'une politique libérale mais su boo xam ne dafa dañ ko dañ ko dafa mel ni communisme la gën a jege wala socialisme la gën a jege bu ñu waree def benn politique sociale pour aider les couches les plus vulnérables on le fait donc ça n'a rien on l'a fait donc ça n'a rien à avec adossé wu ci benn doctrine loolu moo nekkoon dans l'ancien dans dans l'ancien article cinq des statuts du parti mm-hmm. bi nga xamante ne dañoo fusionné avec d'autres organisations mm-hmm. mu nekk toll ci treize organisations en deux mille vingt et Mhm. dañu réformer statut parti bi réviser ko je crois que amoon na révision sax en 2017 mhm. mais révision boobu noonu dafa apporter ay innovation yu majeure par bi ma nekk ci parti bi révision boobu moo moo créer cette instance là mhm. dans la même logique article cinq bi dañ ko yaatal gën a leeral lan mooy gis-gisu parti bi ci politique li nga fi cité yëpp bëri mais yi ci ëpp solo wax nañ cohésion sociale c'est-à-dire askan wi yëpp booloo. wax nañ pluralisme c'est-à-dire nangu askan wi ku ne nga wax sa xalaat féete fu la neex. maanaam ñi yaatal l'espace politique. nangu nañu respecter les libertés individuelles et démocratiques maanaam liberté citoyen yi wax seen xalaat droit de manifester et cetera d'accord nañ ci laïcité maanaam état bi amul fu mu féete ci diine loolu yëpp mu ngi ci article cinq boobu wax nañu ne solidarité international maanaam état yi coopérer seen biir. comme valeur yi nga xam ne moom la Nations Unies di woote ak communauté internationale bi mais dama jàpp ne passage bi ci ëpp solo mooy passage bi nga liiree ne la souveraineté le panafricanisme et la solidarité internationale contre l'impérialisme et boo xoolee passage boobu mooy passage bi nga xam ne mooy génnaat ci préambule bi moo tax bi may wax dama waxoon ne dem leen ngeen liir waat préambule bi dem leen ngeen liir waat article cinq que jàpp naa ne balaa état naan dama war a promouvoir laïcité balaa état naan dama war a promouvoir cohésion sociale balaa état naan dama war a moo mon rôle primordial dans l' économie dafay fekk état boobu mën a xalaatal boppam te loolu mooy un état souverain mooy état boo xam ne amul ay puissance étrangère yu nekk ci ginnaam di ko wax fii ngay jaar mu fay jaar moo tax bi ma waxee moowu jaamu nit jaamu yàlla dama cee teg la recherche de la souveraineté sur le plan économique politique et militaire parce que dama jàpp ne li fi nekk genre benn esclavage buñ moderniser la rek mais mook colonisation ñoo yem mook esclavage ñoo yem mooy lan dafay am benn nit ku ñuul boo xam ne mooy bay di liggéey bay bëgg a di dundal tubaab bi bu fekkente ne au Congo dans le nord Congo Kivu Katanga li fa nekk ci ressource minière moo xam cuivre la moo xam cobalt la moo xam coltan la ay xale dañuy dugg ci ay profondeur u cinquante mètres pour xëcc mine yooyu suñu paree benn beñe lañ leen neexal wala ñu jox leen cinq cent francs wala mille mhm. francs mhm. alal boobu noonu ay puissance étrangère yoo xam ne dañoo ngemb ay mercenaires ñooy jël alal boobu yóbbu ko te mooy mooy développer la technologie en Occident. Mhm. ma loolu dama jàpp ne jàmm nit la. su fekkente ne Niger uranium bi ñu am 4 à 6 pour cent lay contribuer ci seen budget alors que énergie nucléaire bu France buy jógee ci uranium bi mooy contribuer 69 pour cent ci électricité bu France jàpp naa ne tant que nature yooyu dañul ñun dañu mel ni dañuy jaamu tubaab yi loolu moo tax ma gis ne. dañu war a génne loolu jàlloo est-ce yow logique na ci yow man ma toog si jotaay boo xam ne dañuy installer cellule. Mm-hmm. ñi fa nekk. Sacré Cœur ñu ngi ci ay Sacré Cœur rek am na lim lay renvoyer ci benn diine. Mm-hmm. fi ma toog xaw ma ba xam jullit mi ngi fa catholique mi ngi fa keneen ku gëm leneen mi ngi fa. ki nga xam ne moo doon modéré débat bi ñëpp xam nañu rôle bi muy joué ci tariqa murit notamment Daaru Muti muy Cheikh Omar Bamba Diop que je salue de passage. Mm-hmm. ñi jox ma parole man ma naan leen parce que projet mooy jëlee nit ñi si jaamu nit yóbbu leen ci jàmmu yàlla jublu ci ne maanaam seen confrérie nañ ko bàyyi pour indi leneen te ki ma jox parole bokk ci confrérie yooyu moom muy kontaan naan est-ce que ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci yeneen diine ak ci yeneen confrérie di ma tàccu loolu logique na est-ce que logique na Pastef projet bu nekkee projet mooy ci non seulement appliquer diine de mais ci biir diine bi sax day distinguer ne yéen dangeen war a bàyyi seen kuréel. Hmm. ñëw ci sama kuréel. ba pare état du Sénégal nangu ko jox récépissé en 2014 te état boobu ne du ma jox récépissé ku respecté wul laïcité jox ko récépissé yamu ci de. mu dem législative 2017 bokk ci benn coalition. parce que coalition yi parti yi ko constitué dañuy déposé seen récépissé. Mm-hmm. état bi nangu ne participer na. imprimel candidat bi ay bulletin mu nekk député à l'assemblée ñu koy fay salaire jox ko oto jox ko carburant jox ko passeport diplomatique. parti bi dem participé présidentiel ñu nangu candidat ba mu respecté parrainage li mu war a def yëpp déposé dossier ñu nangul ko ko mu dem ñu imprimer ay bulletins suñu télévision nationale mu am fa temps de parole comme candidat yëpp loolu jàll mu dem élection locale législative dans les mêmes conditions mu participer te mhm. autorité mu suñ ko wax yow respecté woo laïcité bu fekkoon ne loolu moo nekk suñu article cinq est-ce que loolu mën na am ci benn état bu sérieux bu fekkente ne man mi Pastef identifier na ma kaay nga dugg ci haute autorité de régulation du parti cinq personnes ñu néew ñi nga xam ne bu problème amee ci biir parti bi ñoom ñooy xool lan la texte yi wax pour mhm. àtte mhm. on est d'accord mhm. kon ñooñu xam nañ texte parti bi koo xam ne 2017 la dugg ci parti bi te 2016 mi ngi mu ngi gëstu parti bi statut yi lan la texte yi wax koo xam ne juriste la ci texte lay liggéey ci loi lay liggéey est-ce que man mën naa ignorer lan la article 5 bu statut Pastef wax est-ce que logique na donc loolu day wane ne débat bi yëpp amu fi woon sens man de lenn laa ci jàngatee. Mhm. mooy Sénégal am na ñoo xam ne ils sont réfractaires au débat d'idées ñoo xam ne à chaque fois ngay jéem a parce que xaw ma dara. Mhm. jéem a yëkkati niveau débat bi jàpp ne xam-xam nga bëgg a teg donte aw ma xam-xam mais xam-xam laa bëgg a am xam-xam laay bëgg a waxee dañ lay tirer vers le bas pour amener un débat de caniveau muy benn. deuxième bi mooy ñu créé cool yi yëpp sans nag minimiser naa ko parce que boo xoolee waxuma bi nga invité du ma ci wax. dama leen di remercier su ma leen mënoon gis parce que yow ma xaalis dama leen di décorer wala ma berne leen invité kër ga ñu ñëw ma berne leen parce que tax nañ sama tur fu mu yeggul woon ci image bu rafet mu yeggu fa ci ay kër diine fépp ci Sénégal nit ñi di ma ñaanal nit ñi di ma woo nit ñi di ma remercier di ma encourager au contraire daf ko renforcer loolu moom yow yaakaar naa xam nga ci dara gis nga exemple lu màggal Kazu Rajab bi donc loolu moom. mais am naa xibaar franchement su ma leen mënoon na benn conférence boo xam ne da nga waroon bokk suñu koy animé Daaru Muxti ko doon euh, bëgg a euh, organiser mais dañ koo mujjee dàq wala quelque chose comme parce que da nga waroon bokk si conférencier loolu wér na am déet. bien sûr am na conférence bu ma animé bi ma waroon mhm. dimanche bi weesu. mais ñoom ñoo jël décision annuler conférence bi carrément parce que du man kese maay conférencier am na koo xam ne kilifa la ci dëkk boobu noonu. Mhm. di Mbàkke Mbàkke bu mag bokkoon na ci conférencier yi. Mm-hmm. te xamaluma ko féete ci politique. Mm-hmm. te dañoo annulé tout court conférence bi loolu ñoom ñoo xam yan raison la. Mm-hmm. mais jàpp ma ne c' des raisons yoo xam ne c' est lié la politique. d' plus que. ñooñu du ñu initier conférence yoo xanaa te duñ ci am xëy na seen ndigalu kilifa foofu balaa ñu koy initier. donc xëy na nag dem nañ ba conditions yi matewut ñu bañ ko def mais loolu ça n'a rien à voir Euh, pour clore euh, ce chapitre la dafa tomboon si benn contexte boo xam ne ni bi diine da nga koy wax si wàllum politique avec le recul est jàppoo ne am na ñuunte say kàddu parce que wax bu ko nit yéegee am déggin wu dara mu leen jàpp ne ka ko wax forcément am na si responsabilité hmm. est-ce que yow si sab déggin yow waxee woon niveau boo xam ne nii ñu bëri mën na ko woon dégg si benn côté wala wax ji nga tege ko noo xam ne ni ku nekk mën na koo am déggin bu ko neex est que loolu du erreur yow soo côté yow su ma juumoon man ndongo daara pur laa aw ma rëyu su ma juumoon waxam ndongo daara pur su ma juumoon ne damaa juum mais njuumte amu ci xam xamalu tax. Mhm. fi ma koy waxee ñi fa toogoon di seetaan xam amoon na une cinquantaine ou une centaine de personnes. Mhm. gisuma ci kenn bi mu jeexee ku ñëw ne ma juum nga wala ba may wax wax ji mu wane ne naqarlu na ko. bi loolu bi ma koy def am na live bu amoon ci benn site bu ko doon retrace bu ko doon retrans retransmettre en direct. Mhm. y avait des milliers de de de de de nit nit ñi dañ doon like di emee di kontaan gisuma kenn ku ko ñaawlu. mais mission parti du bàyyi ma pare du jëlee jëlee nit si jaamu nit yóbbu ko si jaamu yàlla loolu du mission parti politique bàyyi ma pare le lendemain. Mhm. bu fekkoon ne dañoo génnee wax ji analyser ko dans sa substance ne lii nga wax moo dul yoon ma mën a nangu ne erreur mën na am mais dagg wax jàllo maanaam wax ngay wax wax ji parewul ñu dagg ci benn parti loolu amul kuñ ko mënta def ci réew mi. nga wax loo xam ne moo gën a baax ci àdduna bi. ñu mm. jël wax ji jàll bi ko def ko safaan. mission wu parti politique nekkul jëlee nit ci jaamu nit naan da leen yóbbu non non. Mm. que parti politique li la tax a jug mooy. id aider askan wi ci pays boo xam ne laïcité nañuy woote. d'accord mais loolu c'était benn raisonnement boo xam ne da ngay assimiler da ngay ci dara. Mm-hmm. pour expliquer nit ñi lii dafa am dimension boo xam ne ne pour sauver doomu aadama rek la. d'accord mais ça n'a rien à voir mm. avec l'espace religieux man man mi man mi mujjoo juddu Sénégal fii. fekk fi ay nit ñu fi liggéey lu am solo ci réew mi ci diine ci valeur ci principe. Mhm. ci économie ci politique ci taxawaay ci société civile. man am naa waane bu doy ni man maay jëlee ñi seen gëm-gëm sama junni morom amuñu capacité boobu te loolu parti politique bu ko doon jéema a Sénégal bu ko doon jéem Sénégal da nga ciy échoué ndax sénégalais ñoo si dul ànd. d' accord léegi ñu wax si euh, président Macron mi ngi def benn mini tournée en Afrique. Euh, balaa muy tournée boobu def na benn discours de trente cinq minutes pour wax présentation ni mu déggee léegi maanaam partenariat entre la France et l' Afrique euh, mel ni ku wax ne léegi sax dem bay wax ay hommes d' affaires euh, français ne leen léegi sax dootuma leen défendre bu nekkee ne doo leen respecté seen i engagement ak yooyu noonu yëpp loolu tamit nan nga ko déggee mu jàpp ne fu mu toll ni changement de paradigme war na mën a am waratuñu xoole Afrique comme koo xam a dem rek tibb lu mu yor dem suñu yoon wala ñoo war a yërëm mais dañoo a ànd àndum nawle bu nekkee mën naa ko waxee noonu discours boobu noo ko déggee ak la sa xew tamit ak digganteem ak Tshisekedi yi gis nañ aussi il y a discours moom def na discours mais président africain yi dégg naa tamit le président du Bénin euh, Talon moom tam am na mu waxee dafa mel ni moom am na discours bu mu yor mais président africain yi aussi ñu si bari si ñoom ñuy tàmbalee changer discours. voilà loolu boo ko bëggee jàngat. Mhm. il faut nga nga nga gis ne dafa am ñaari constat yu ciy feeñ. mooy loo xam boo xoolee gis ko. Mhm. ak loo xam ne ay analyse nañ ci def. Mhm. le fait que Macron di waaj a def tournée africaine tournée rek nga xam ne mënoon na xëy def ko mu convoqué l'élite mhm. en France mhm. muy homme d'affaires yi muy acteur politique mhm. muy ambassadeurs yi muy même ay artiste daal di leen wax lan mooy gis-gisam ci Afrique dafa am benn constance boo xam ne moom lay wane mooy l'obsession africaine de la France mooy France dafa jàpp ne l'Afrique est est vitale pour elle mu ngi koy wax sax mu ngi naan léegi am na ñeneen ñoo xam ne ni ñoom la ñu xëccool Afrique te ñoom ñooy gën a nekk sax ay positions yu mooy France à chaque fois hmm. dafa nekk ci logique boo xam jàpp na ne sans l'Afrique mënul dundu te Jacques Chirac nekkoon na président France def ñaari mandat maanaam hmm. douze ans nekkoon hmm. na premier ministre ñaari yoon sax ci dëkk ba. dix ans wala douze ans. douze ans daa six ans la woon jamono jooju. ans ak ak cinq ans hmm. mais moo hmm. moo taxaw ne sans l' Afrique la France. parce que léegi ñaari cinq ans la. voilà hmm. sans l' Afrique la France serait reléguée au rang de puissance du tiers monde bu taxul woon Afrique France dëkk bu ndaw lay doon on est d' accord. Sénat français en 2011 defoon na benn rapport intitulé ko l' Afrique notre avenir Afrique mooy seen avenir. amoon na lu ñuy wax la cellule africaine de l'Élysée jamono de Gaulle ki nga xam ne mooy Jacques Foccart moo doon coordonné benn cellule bu ndaw boo xam ne moo doon gérer les rapports entre mm-hmm. l' Afrique et la France mm-hmm. notamment entre euh, palais France ak euh, chef d' état africain yi Macron moo ñëw daal dina dafa indi un conseil présidentiel pour l' Afrique avant loolu am na ñeneen ñu jéem changer tur bi mais Macron mu indi conseil présidentiel pour l' mais loolu yëpp li muy wane mooy France moom à chaque fois ci diplomatie am dafa jàpp ne Afrique dafa stratégique pour moom te du ko mus a bàyyi loolu moo benn beneen constat bi ci génn mooy France à chaque fois am na capacité adapté wu à l'histoire mm -hmm. je m'explique c'est-à-dire Sénégal dañoo benn premier ministre bu ñu wax Amadou Ba mu dem def visite France daal di ne notre problème avec vous wax ko premier ministre France c'est qu'il n'y a pas de problème. ci période boo xam ne le discours. anti impérialiste. Mm -hmm. peut-être même anti français quelque mhm. dafa dafa am doole en Afrique moom day nier l'évidence tubaab bi ñoom bi ñu indee esclavage dem ba gis ne takk nit buum ci baat c'est coûteux pour eux te que adduna bi weesu na ko dañ ko changer indi colonisation. Mhm. indi seen i armée indi seen administration. Mhm. jël suñuy ressources imposé ñu l'impôt jàpp suñuy sëriñ takk wala ne fii la réew mi war a jaar téye buur yi ray yi euh, exilé et cetera bi ñu demee ba gis ne. jugee nañ ci seconde guerre mondiale ñaari superpuissance yi nga xam ne ñoo gañ a guerre bi muy États-Unis ak URSS. Mhm. ànduñ ci colonisation te dañuy soutenir processus de colonisation lan la France def daal di accompagner le processus de décolonisation à travers loi cadre commencé ñu may autonomie naan léegi seen seen seen dëkk yi vice président yi yéen a koy nomel seen bopp. bi loolu jàllee bi ñu amee indépendance ñu fexe ba coopérer ak ñun indi beneen forme de colonisation ñu di ko tuddee néocolonialisme. ci logique boobu la France nekk mooy à chaque fois. Mhm. ñu esseler ko à chaque fois ñu harceler ko dafay changer nature domination bi mais day bëgg tout le temps di la note mooy tubaab bi am nañ logique adapté wu à loolu mooy les mhm. constats. maintenant mhm. les analyses bi ci jiitu mooy wane ne ne jeunesse africain bi ñoom ñoo yor le pouvoir et bu ñu bëggee Afrique soppeeku day soppeeku pour lan Sénégal entre 2014 2015 2016 ay ñoom Guy Marius Sagna benn Taleb Sow. Pape Abdoulaye Touré ak ñeneen dama si de ñooñu rek. waaye ñoom Daouda Gueye. et cetera mm-hmm. dañ fi yàgg a taxaw naan coalition non au APE. Mm-hmm. non au franc CFA di organiser marche. Mm-hmm. bu ñu organiser marche ñi ñëw parfois du mat quinze personnes. su ñu ñëwee police ñëw taxañ leen def leen ci fourgonnette yóbbu. su ñu leen yóbbuwee commissaire pour moom réussir na mission de maintien de l'ordre public. su rendre compte à son supérieur hiérarchique. moo xam ministre moo xam euh, directeur général de la police nationale bi rendre compte ministre de l' intérieur. Mm-hmm. wala mu rendre compte préfet ñoom dañuy jàpp ne réussir nañ li ñu bëggoon mooy ñii seen marche réussirul. seen baat ba ñu jóg. une certaine presse day tombé ci piège bi day naan. fiasco ils ont été muselés. ils ont mm-hmm. été lynchés et cetera alors qu'en réalité acte spontané yooyu ñu doon posé un peu partout en Afrique moo permettre tubaab bi dem ba xam ne la jeunes africaine dafa am lu muy bañ. ba Macron obligé joxe quatre gages dama lay wax rek ci ci première mandat am ñëw franc CFA mu commencé ne nañu réformer ECO. Mhm. indi ECO dem def ci discours génn wax daal di ne ñoom dañuy retiré wu ci comité politique bi ci biir BCEAO. waaw mu ngi koy doon waxaat sax mu ngi ko doon rappelé. patrimoine historique culturel artistique mhm. africain. Mhm. mu def rapport boo xam ne Felwine Sarr moo ko jiite ak Savoy. bi ñu paree mu ne di def ci restituer une bonne partie. absolument yamul foofu moom moo moom moo bokk si ñu ne. dañoo xeex pour ñu réaffecter les droits de tirage spéciaux bu Afrique dans le cadre du Fonds monétaire international ci 2021 bii yamul foofu génocide bi nga xam ne génocide rwandais la France mhm. yàgg a wax ne amu ci benn implication. après mu dem reconnaître reconnaître loolu. oui. Mhm. mooy kon nag à chaque fois ñun jeunesse africaine ñu ngi xeex ñu ngi am taxaw thème bi nga xamante ne dañ koo leeral ne d'accorduñu ci France di ñu noot. Mhm. tubaab bi. par par la force mu neex leen mu naqaree dañuy dellu ginnaaw kon la force état nous dirigeants yi. loolu mooy première analyse. damay guddal nag parce que nag. politiste la non dafa am solo. géostratégie ak science politique moom laa njëkk a jàng may def droit. relation internationale. Mhm. loolu mooy premier analyse deuxième analyse mooy en réalité c'est un simple discours mais du nekk ci acte yi dama la jox ay ay ay ay exemples yu clair Macron novembre 2017 demoon na Ouagadougou ci université. Mm daal di def le même discours ne c'est fini la France Afrique xam nga booboo gënoon violent. oui diggante novembre 2017. bi passé dafa ne précarité jeex na ak léegi. précaré jeex na astafurlah précaré jeex na. Mhm. diggante beeg léegi mat na cinq ans et quelques mois est-ce que sentiment anti-français dafa gën a exacerbé wu wala dafa dellu ginnaaw au contraire dafa gën a exacerbé wu mhm. benn ñaareel bi dafa am loo xam ne histoire moo koy analyser. le passif historique de la France en Afrique est lourd nit ki mënoo ñëw ay maamam nga takkoon leen buum ci baat jaam jékki-jékki coloniser ko jékki-jékki mu am indépendance selon certains spécialistes des relations internationales notamment africain dañuy wax ab ah, France nu mu néew néew loxoom impliqué wu na ci plus de cinquante coups d'état en Afrique yii ci ay guerre civile yu mel ni guerre bu Biafra yii ci ay soutien de dictature yii ci ay répression sanguinaire mhm. mais loolu mu sa loxo munu cee taq ripp nga xëy benn jour nga nga sol nga lu weex génn bu ko wax ak africain du ñu la dégg le passif historique il est lourd beneen bi mooy mbirum base militaire yi waxu ci lu leer parce qu'ils disent dañuy changer empreinte xam la mooy changement d'empreinte. Mm-hmm. mooy Jean-Yves Le Drian ancien ministre euh, des affaires étrangères avant loolu nekkoon na ministre des forces armées bu France. Mm-hmm. li mu waxoon mooy diminuer nos effectifs tout en augmentant notre présence. mooy France tey officiellement retiré wu na ci hmm. opération Serval euh, Barkhane Mali Mali waay officiellement retiré wu na ci Sahel mais à travers seeni force de renseignement à travers seeni mercenaires il faut le dire à travers seeni hommes de main à travers seeni base militaire yi nga xam ne fan la ñuy former yenn officiers yi nga xam ne dañuy màgg war a servir seen réew di servir ay états étrangers gis nga à travers loolu France mu ngi continuer di présent militairement en Afrique sur le plan monétaire le franc toujours là donc pour toutes ces raisons discours bi du audible discours bi du audible bu fekkee ba tey jii may wax yow euh, Niger maa ngi lay jox euh, wax Niger Niger bi ma lay wax mhm. yàggul mars deux mille vingt et dafa am société minière bi ñu wax Comica comi euh, mooy compagnie minière dal da dal da Lakota compagnie minière boobu noonu actionnaire majoritaire bi ci am cinquante pour cent Orano la c'est une société française xëy na benn mhm. jour rek ne léegi mi bon uranium bi cours bi dafa wàññeeku tëj mine bi licencier six cent agents bu fekkente ne li fay am ci pollution radiographique boo xamante ne uranium bi ñu fay tiire moo koy indi muy polluer les nappes phréatiques ba nit ñi dañuy feebar di di di di di di di traîner ay pathologies yu extraordinaire ndax lan minerais yi ñu fay extraire dans des conditions yoo xam ne respecté wul les règles d'hygiène de sécurité ou d'environnement bu fekkente ne nooru Congo bi ma lay wax sànq. li mhm. ñu fay jëlee ci cuivre ci cobalt ci coltan loolu du France kese loolu ay puissance yoo xam ne ñeneen ñi sax ñoo ëpp doole France dañ koy jëlee dans des condition yoo xam ne du profiter état bi jëlal exemple Guinée bi ñu nekk nii Guinée mooy première exportateur mondial de bauxite bauxite dafa am solo par rapport ak li lirañ euh, euh, kii nu tudd aluminium. Mhm. mooy mooy mooy dans mooy matière première bi nga xam ne si lañ jëlee aluminium bi aluminium xam nga li mu amee solo. Guinée day exporter quatre vingt sept millions waxuma quatre vingt sept mille de quatre vingt sept millions tonnes de bauxite par an mais alal boobu noonu yëpp lan la jëriñ Guinée bu fekkente ne vingt deux pour cent population Guinée ñu ngi voyager ci yeneen dëkk pour out fa lu ñu dundee. Mhm. pour am un lendemain meilleur. voilà les questions yi nga xamante ne bu fekkee réglé wuñu ko. ah franchement du ay discours yu rafet mooy mun tax ñun jeunesse africaine France mais maître j'ai parlé aussi du discours de yenn président yu tàmbalee am déglu nga keroog Tshisekedi il a parlé sans complexe mën nañ ko jàppee comme benn mbir bu ndaw ni mais dafa am c'est c'est c'est c'est c'est c'est indicateur de benn mbir boo xam ne mi ngi commencé am gis nañ euh, na mu waxee Euh, loolu tamit est-ce que nekkul di law ñu gis euh, tamit fulla bi nga xam ni euh, Paul Kagame bi mi koy wane quoi qu'on puisse dire de lui du démocrate du mm-hmm. nangam mais mm-hmm. gis nañ fulla bi loolu tamit dafa mel ni am na benn Afrique benn génération de président waxte ngi ñëw ndànk ndànk ñoom tam ñu ngi commencé c'est ça bien sûr loolu mën nañ ko rafetlu parce que li président wax mooy France na clarifier position ci rébellion M23 bu Congo bi ñu créé woon 2012 bi nga xam ne li ëpp ci pillage yi am ressource ci nord-est bi ma lay wax noonu ci ressource minière yooyu moo koy jiite ak ay puissance étrangère il faut que France wane position mu leer bu dee daf koy dénoncer mu dénoncer ko. d'accord euh, beneen bi mooy Kagame ñëpp mën nañ rafet lu taxawaayam mais loolu au-delà des discours li Kagame wane réew mooy lan da nga koy wane ci sa jëfin balaa nga naan France na fi jugee et cetera mooy yow sa diggante ak sa askan est-ce que yaa ngi leen di noot wala yaa ngi doxal démocratie benn ñaareel bi mooy balaa nga naan France na fi jugee na fi jugee. est-ce que yow alal bi ñu la dénk. yaa ngi koy gérer de façon boo xamante ne sobre et vertueuse comme ni ko Macky Sall di waxee loolu loolu mooy les questions yi nga xamante ne moom mm-hmm. lañ laaj boo ko melee sa biir réew nangoo futteeku liggéeyal sa réew sa askan ci boppam ñooy ànd ak yow ci volonté de changement boo xam ne dootuñ nangatu beneen puissance di leen noot mm-hmm. ça ne veut pas dire que chauvinisme lay doon wala nationalisme étroit mais ça veut dire que dañuy tijji relation yoo xamante ne li Macron doon wax ci discours am mooy coopération boo xam ne elle est équilibrée elle est équitable mais elle est réciproque parce Euh, président Macky ak président euh, Macron am na xibaar yu génnoon euh, defe naa aljuma ji wala alxames bi mais source benn source diplomatique weddi ko ñu ne ñoom ñaar seen waxtaan troisième candidature duggoon na si ba Macron conseil au président Macky ngir mu dem sam déet ndax jàpp nga ne France fu mu toll nii du point de vue de ses intérêts stratégiques fii nii Sénégal du France kese mais ñu bëri am nañ fi kii parce que gis neen euh, secrétaire d'état euh, bu bu bu États-Unis ñëw fii gis neen aussi euh, le chancelier allemand ñëw fi ñu bëree bëri ñu ngi fii ñëw. Mm. ndax jàpp nga ne waxtaan yi dem ba foofu ak la position de la France par rapport ak une éventuelle troisième candidature. maanaam yow Diallo sax yow avoué nga tacitement que Macky Sall c'est un président. favorable aux intérêts français. non man avoué ma loolu de. c'est-à-dire <laughs> dama am na lu mu leen liggéeyal jàpp nañ ne ba xam mën na sauvegarder seen intérêt pour le futur oui ou non foofu lañ foofu lañ toll ak moom loolu rek moo. mais am na une source diplomatique loolu rek moo ñaaw ci Sénégal. Mhm. maintenant nag bu fekkee information bu avéré la mooy il faut ñu xam ne France amul xarit état yi amuñu xarit état yi ay intérêt nañu am François Mitterrand lu mu doon tuddee la continuité dans le changement c'est-à-dire nga tudd yi sant Sall. nga tudd Ngagne Demba sant Touré loolu amul leen solo seen intérêt nañu ko sàmm. d'accord maintenant. Mhm. loolu mooy benn deuxième bi mooy bépp réew boo xam ne am nañ fa ay intérêt stratégique moo xam ay ressources pétrolières gazières moo xam ay ay part de marché yu am solo moo xam monnaie bu ñu leen téyee xalaatuñu moo xam présence de base militaire cercle d'influence lobby xalaatuñu bàyyi ko maintenant nag adduna bi dafa weesu foo xam ne ay régime autocratique ngay soutenir. ñu forcer peuple bi rendi leen di dal seen kaw ñooñu bu ñu fa jógee ñeneen ñëw di la ko defaraat loolu weesu na France moo war a comprendre ne am na droit sauvegarder ay intérêt kenn bañalu ko ko Macron wax na ko on est là pour sauvegarder nos intérêts mais damay sauvegarder sama intérêt ci kaw as africain yi toog seen ginnaaw di lekk lu Afrique nekkatul lekkukaay di wax dans son livre solution euh, di wax ne il faut un partenariat yàgg na ko sax wax gagnant gagnant gagnant France moo war a comprendre ne foofu la toll quel que soit bu munti am loolu foofu la. mais am na jeunesse africaine di laaj. am na ñuy maintenant nag su fekkente ne France. Mhm. dafa jël option wu soutenir Macky mais lan la ci gagné parce que régime Macky Sall ñaara mun am Macky Sall mënut a nekk candidat keneen bu demee ne dafay bokk ci régime boobu. bu ñu demee dans les urnes askan wi da koy baat. Mhm. parce que régime c' est un régime impopulaire. élection législative wane na ko. Mhm. ñu wax ci président Macky ak Marine Le Pen. mais ma bàyyi ma daaneel. donc France benn affaire la obligé def soit soutenir le processus démocratique. Mhm. keneen ku sénégalais yi fal. keneen ku sénégalais yi fal mu fexe collaborer kooku bu ko neexee mu sauvegarder ay intérêt mais ci kaw kooku di ñëw xam ne président u Sénégal la warul adossé wu ci benn puissance étrangère. te loolu mooy le discours de Pastef. Mm, waaw dinañ si ñëwaat euh, ancien ministre ancien premier ministre Hadjibou Soumaré interpellé le président de la République ne ko ndax da ngaa may euh, Marine Le Pen euh, ay koppar bi mu fi ñëwee ñu koy xayma lu war a toll ak huit milliards am un ministre auprès de. biram fay ministre auprès du ministre de l'intérieur bu génn wax ne mbir mi euh, amul ba sax euh, tontu tontu yoo xam ne nii euh, maanaam tontu na mais ndax jàpp nga ne war na tontu bi war na mën a jóge fu gën foofu est-ce que yoon neen am une réponse officielle boo xam ne nii day day day tukkee ci benn communiqué du gouvernement walla la présidence benn communiqué pour leeral mbir mi laaj ji nga xam ne nii moom la Hadjibou Soumaré laaj. bon Sénégal bi nga xam ne ay journalistes ñi nekk ci seen métier. Hmm? Hmm. dañuy wax benn wax ñu topp leen pour diffusion de fausses nouvelles goo mën a Hadjibou Soumaré en tant que acteur politique da jël risque wax loolu te amul fu mu ko basé ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi benn ñaareel bi. Hmm. Birame Faye kenn interpellé wu ko ku ñu imp ku ñu ku ñu interpellé mooy le chef de l' état. ñaar ñetteel bi mooy lu tax wax jooju noonu mën a jur ay wax fii ay wax fële mooy dafa yàgg Afrique. yow xam nga. waaw Kadhafi financé woon na. Nicolas Sarkozy. yow mhm. xamoon nga la famille Bongo notamment Omar Bongo ci ay chef d'état Afrique mhm. français yoo xam ne dafa mhm. financé seen campagne xamoon nga l'affaire des diamants entre Bokassa ak Valéry Giscard d'Estaing bu nekkoon président France donc dafa yàgg dans les rapports africains ay hommes politiques africains yu ñëw yu français yoo xamante ne dañuy ñëw Afrique def ay visites ñu finance leen jàppale leen bu ñu faluwee jàppalewaat chef d'état yooyu ci seen projet yoo xamante ne c'est contre la volonté populaire ci ay août troisième mandat ci ay dérive dictatoriale ci ay modification de constitution ci ay prédation des ressources donc c'est une logique bien claire mm -hmm. quand exige des explications parce que affirmé wul dafa poser question. oui et quand même mm. bépp citoyen boo déggee ay rumeur war nga mën laaj say officiel mm. lii tontu leen ñu si. am na ñuy naan ce leader Ousmane Sonko dafa tàmbalee changer position par rapport à l'Occident mais par rapport particulièrement à la France. a mm. na hostile par rapport à la France amoon sax li mu waxoon par rapport ak RFI France 24 ak Le Monde mais le fait sax que. Euh, mu demaat accor une à France 24 RFI ñu bëri jàppoon nañ ne loolu misaal la si léegi taxawaay bu bees boo xam ne ni sa leader daf ko am jàpp ne euh, la communauté internationale notamment la France mënul àgg fenn fi euh, te wan leen gannaaw loolu ndax yow euh, da nga koy firndeel am déet. ñun wanuñu kanam kenn ñu ginnaaw kenn askanu Sénégal nañu wan kanam ñoom nañuy jëflanteel ñoom nañuy mm-hmm. liggéeyal. Mm-hmm. mun nañu collaborer ak n'importe quelle puissance nee naa la maa ngi lay wax sànq ci article cinq. oui Pastef euh, euh, même lettre bi nga xam moom lañu def temps yi passé président Ousmane Sonko à la communauté internationale est-ce parle de souveraineté mhm. d'ouverture dans le monde loolu dafay wane ne li président waxoon ci livre solution loolu du du de nous ne sommes pas contre la France nous sommes pour le Sénégal mhm. wax na ne il ne s'agit pas de chauvinisme ou de étroit c'est clair mooy ñëwuñ ci pour nag xat adduna bi loolu mënul fi nekk mais li ñu bëgg nag mooy sauvegarder intérêt sénégalais yi fu mu munti nekk. d'accord ñun loolu moo ñu ëppal solo maintenant nag wax ci média étranger man mii de heure bu ma nee marché gis fa France 24 gis fa RFI bu ma interpellé dama ciy wax. quel est problème. mais moom dafa newoon bu bu bu. waaw parce que bu conférence de presse sax wala ñoo ñu dugg moom mu jéem. déedéet il waxoon ci benn contexte. daf ne mais waxoon na ko. média yi nga xam ne dañ hmm. doon. bokk ci benn récit de désinformation et de diabolisation. Mhm, mhm. boo xam ne dafa destiné woon à ternir image am. Mhm. ci dossier Sweet Beauté. di liggéeyal Adji Sarr boo xam ne nekkatul information mais communication la di ko présenter à l'international comme une victime. mais quand même il fallait se faire respecter par rapport à ces organes de presse. loolu même bu amoon yoo xam nga ay organes de presse yoo xam Sénégal ñoom ak Pastef à un moment donné. am na lu ñu d' accordul Pastef am ay position yu affirmé par rapport ak ñoom seen i taxawaay parce que d' accorduñ ci ni ñuy doxalee. lettre bi donc loolu loolu loolu loolu c' est pas spécifique à un média étranger. d' spécifique à nos rapports avec toutes les couches de la société. Mm-hmm. muy homme d' mm-hmm. muy homme politique muy acteur société civile muy média da nga ñuy respecté ñu respecté la ñu collaboré nga def sa liggéey waxuñu la nga faral nga faral ñu. wala nga d'accord ak ñun à 100 pour cent suñu xalaat wala nga liggéeyal ñu far ak ñun mais li bëgg mooy ñu respecté wante mutuellement. lettre bu mu bind à la communauté internationale est loolu euh, tekkiwul na que euh, le combat au niveau national ñàkk na ko muy woote wallu à l'extérieur. <laughs> acteur politique boo xam ne plus fort reste la tàmbalee mhm. am législative mu jiite liste boo xam ne moom dañoo rejeté moom nekkul sax ci liste boo demee démb rek benn maire malgré tout list boobu noonu moo am quatre vingt deux députés moo am quatre vingt députés. tere pouvoir waaw. moog wallu waaw moog wallu mais hmm. yeey wallu la. waaw tere pouvoir bi mu am majorité à l' assemblée nationale. kooku franchement bu dee bataille nationale bi da koo perte yi xam nañ. Hmm. maintenant non su wàllum. war a bokk. non non war a bokk. 2024 non war a war a bokk. yow gisagoo condamnation judiciaire te doo gis incha allah condamnation judiciaire boo xam ne. mun na ko tere mu bokk donc perte bi mooy dootaay mooy nga dem bañ condamné la dans toutes les euh, voies par toutes les voies de recours. Mm-hmm. ba nga ba ba nga jeexal. nga ñi mën la wax ne perte nga. te loolu ku ko def naan da ngay dem ci àdduna bi bu boole. non mais da ngay nga xam ne yow sénégalais du ñu voté maintenant nag. Mm-hmm. ñu ñëw ci lettre bi. Mm-hmm. xam nga en réalité. lettre dafa gudd. am na ñoo xam man leer na ma ne jëruñ temps wu lire ko. lettre boo xoolee en substance. dernier paragraphe bi mooy wax lan mooy objectif lettre bi maanaam lan lay woo communauté internationale bi li ci des yëpp benn récit boo xam ne dafa am. li mu dund retracé ci ay faits. li mu dund waaw de façon factuelle mi ngi njëkkee si li xewoon ci corniche bi. ci mhm. mu retracé rey yi ñu rey ay sénégalais. Mhm. ñu doon génn ne d'accorduñ ci fu ñu bëgg a yóbbu Ousmane Sonko pour rendi ko ci événement mass yi nettali confiscation liberté yi am ci Sénégal yëpp. Mhm. wax ne nag ni ñuy présenté Pastef comme un parti terroriste. comme un parti boo xamante ne dafa dafa jug pour xeex ak Occident wane ne loolu noonu du dëgg wax lan mooy véritablement Pastef mais en substance dernier paragraphe bi laay wax de li muy wax dafa clair daf ni ñu ngi invité la communauté internationale mu mu abstenir de tout soutien au au président Macky ci projet yi mu am pour yàq Sénégal ak ut troisième mandat loolu au contraire ñëpp ko war a saluer en patriote parce que da lay ni tere ingérence muy benn deuxième bi dafa am lu ñuy wax pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1966. Mhm. boo xam ne dans le cadre de l' assemblée générale des nations unies nga xam ne moo réunir 193 Sénégal daf ko signé en 1970. Mhm. la la mhm. signé euh, pacte boobu. ratifié ko en 78. pacte boobu noonu dafa am ay exigences yu mu tënk Sénégal en matière de respect des droits humains. pacte boobu dafa am lu ñuy wax le comité des droits de l'homme bi nga xam ne mooy surveiller sa mise en œuvre et son respect. xam nga comité bi ma lay wax nga xam moo koy surveiller c'est des experts indépendants en 2006 Kofi Annan bi jiite woon Nations Unies secrétaire général Nations Unies. Mhm. dafa xeex pour ñu créer beneen organisation intergouvernementale buy ëmb représentant état yëpp buy xeex droit de l'homme mu li ñuy wax le conseil des droits de l'homme buy def lu ñuy wax ay évaluation périodique universelle pour fexe état yi nañu respecter droit de l'homme droit de l'homme mooy waral mu am un haut droits de l'homme ñun ñoo en son article quatre-vingt-dix-huit ne accord ak traité yi nga xamante ne ñun dañ ko approuvé wala ji ratifié ko am nañ une valeur supérieure à celle des lois maanaam ñoo supérieure loi yi mm-hmm. léegi man loi permettre na ma ma dénkee nit sama xaalis mu bañ hmm? mm-hmm. ne du ma ko delloo delloo ma sama xaalis mu bañ ma porté plainte pour abus pour abus de confiance bu nit duggoon sama kër jël sama alal ma porté ko plainte ne dafa ma daf ma sàcc de la même façon Mhm. engagement internationaux yi nga xam ne ay loi la parce que intégré nañ ko suñ corpus juridique te mhm. sax moo supérieur suñu loi yi mhm. suñ constitution moo ko wax de engagement yooyu noonu ku ko respecté wu dañ lay wax ak say partenaire ne la ah Macky Sall moo engagé woon ne day respecté droits humains yi moo waxoon ne day moytu lu ñu wax les exécutions sommaires arbitraires et extrajudiciaires c'est-à-dire nit ki jàpp nga ne dafa def trouble à l'ordre public même bu dee defu ko au lieu nga jàpp ko yóbbu ko commissariat ñu traduire ko ñu defeere ko devant le parquet ñu àtte ko mais da ko téye rey ko publiquement d'accord loolu boo ko bañ boo ko signé ci àdduna bi muy ay loi nga dugal ko sa biir réew pour respecter exigence yooyu soo ko respecté wul c'est normal un acteur politique ne nga respecté ko wax ak ñi nga ko engagé woon ne la kii defu ko mm-hmm. benn beneen bi mooy fi may mm-hmm. daanelee mooy mm-hmm. président Macky Sall il a fait même pire le 1er avril ki ñuy wax mooy Nav Navi Pillay moo nga xam ne moo jiite woon commissariat des haut commissariat des nations unies aux droits humains président Macky Sall le 1er février 2012 na ko benn lettre di ñaaw lu Sénégal rey yi fi am ba ne 5 moom nag tey 14 la ñuy wax ci événement yi ci élection législative a parlé de 2 ou 3 morts. Hmm. moom doon na ñaawlu loolu. si mais moom pire encore si paragraphe bu mujj bi lu mu wax mooy daf leen demander ñoom ñi interpeller président Abdoulaye Wade maanaam da leen di invité à une ingérence. maanaam nañ invité da leen invité ñu interpeller président am na sax ñu koy jiiñ xaw ma xam dëgg la am du dëgg ne def na ay correspondance ay lettres officielles yu mu saisir ay chefs d'État africains yu am xaalis yuy participer ci ay élections pour demander ñu soutenir ko financièrement loo xam ne mën na compromettre la souveraineté de ce pays le processus libre et démocratique de nos élections à travers des influences étrangères mm-hmm. loolu ñi koy def nag au respect des engagements internationaux qui sont supérieurs à nos lois. d'accord qui sont supérieurs à nos lois. dafa nekk ci benn logique boo xamante ne pour sàmm askanu Sénégal la. parce que nag mooy dañuy invité euh, acteurs internationaux yi pour ñu artu parce que ñooñu bu ñu artuwul bu ëllëgee li am Soudan mën na fi am de mission des Nations Unies au Soudan mission des Nations Unies au Congo mission des Nations Unies au Mali MINUSMA parce que lan dugg nga ci benn conflit ci benn cycle mhm. bu yàqu boo xam ne ma tas na. balaa ak Euh, communauté internationale bi di yegg ak ñun foofu. Mhm. nañ leen woo ñu artu ñu si départ bi. le 16 yéen a koy waajal. le 16. mars waaw. bien sûr no le 16 euh, taxawaay bu am solo la taxawaay bu am solo la. lan moo nar a xew euh, le 16 ndax mën nañ amaat renvoi wala ndax le 16 moom mun ñu taxawee faw ñu la yow. non mën nañ amaat renvoi parce que en réalité. boo xoolee première jour bi ñu bi bi ñu njëkk a euh, tijji dossier bi. Mhm. y avait un renvoi ferme renvoi ferme mooy. le 2 février renvoi boo xam du ko renvoi. mais bu ñëwee def na un renvoi ultime. renvoi mën nga ñëwaat juge bi gis ne circonstance bi na def un renvoi bis. <laughs> renvoi ultime bis su ñëwee bu ko neexee mu defaat renvoi exceptionnel. bu ko neexee mu def renvoi exceptionnel donc loolu day wane ne renvoi du renvoi loolu liggéeyu avocat yi. la sur le plan judiciaire mais moo tax léegi léegi les profanes am nay profanes yu naan mais. bu nekkee Ousmane Sonko moom nee na yor na rapport moom moo ne dafa doon lii sax bi muy wax mais lan moo war a tax sax ay avocat am di saako ay renvoi lan moo tax ñoom waruñu sax yàqanti mbir yi ñëw becc gaaw kayit yi ñu yor <laughs> dem def seen nemmeeku tour def seen wëyal seen i mbir. non non en fait ce qu'ils n'ont pas compris. Mm-hmm. mooy euh, yoon bu ñu la ciy topp. Mm-hmm. dafa am lu wax le demandeur et le défendeur. Mm-hmm. demandeur mooy kiy topp. défendeur bi mooy ki ñuy topp. défendeur bi dafa am ay type de défense yu mun def maanaam ay ay ay ay pexe yoo xam ne da koy def pour wane ne deful pour mhm. aar boppam défense yooyu dafa am lu ñuy wax les défenses au fond mhm. défense au fond mooy lan mooy wane ne defoo ah mhm. ci ne liñ lay jiñ def loo ko am lu ñuy wax les exceptions maanaam ñi topp la ci yoon nga ne ko man waxuma def naa am defuma de mais yoon tribunal bi nga saisir dafa incompétent nit topp la ci yoon nga ne ko non man waxuma def naam defuma de mais prescription si dafa dafa am loolu loolu sax loolu sax recevoir la mooy l'action irrecevable parce que mm-hmm. lan mm-hmm. Euh, diggante bi nga ma waroon toppee par exemple délit la woon trois ans yu weesu na kon mënatoo ma topp loolu c'est pas des types de défense au fond te tekkiwul ne yow bu ñu ci fond bi parce que loolu mooy jiitu avant ngay dugg ci fond bi ndekkiwul mm-hmm. ne bu ñu ci fond bi am nga tort te xam ne yow client am nga am nga dëgg yow nga bëgg a dem comparer ak avocat bi ne la déedéet man maay demander renvoi man damay gis en procédure de flagrant délit nit ñëw ñu ngi ko tëj mandat de dépôt de xam nga président Ousmane Sonko il est libre. Mm-hmm. mu ñëw bëgg ñu àtte ko sur le champ avocat am demande renvoi pour plaidoirie yi. parfois client bi de mais mais avocat bi xam na ne lii mooy intérêt wu bi client bi moom jàpp na ne moom dafa set bu ñëwee mën na layal boppam ci kanamu mm-hmm. yoon. Mm-hmm. wala demande naa renvoi pour comparution de telle personne parce que xam na ne moo ëpp solo ci dossier bi à ce stade de procédure pour leeral mbir yi loolu liggéeyu avocat yi la mais loolu tekkiwul ne dans le fond bu ñu ci yeggee rapport am na wala amul moom du doon débat. mais et, et au-delà de ça. c'est mm. pas une question judiciaire. c'est une c'est une, c'est une question politique. qu'il faut répondre sur mais ñetti chefs d'accusation euh, faux usage de faux ak euh, injure publique euh, ñett yooyu noonu yu la yoo xam ne nii su ma nee diis dama koy natt par rapport ak. Euh, article euh, L. L29 ak L30 bu code électoral foofu laay waxee. Hmm. diis beeg woyof bi. ndax gisoon yooyu lu diis la. mucc si jafe na xam nga xam nga li ñu bëgg a instaurer wala li ñu bëgg a ci conscience collective bu sénégalais yi. que bu ñu la hmm. toppee rek risque am na. loolu maanaam mbir mi du lañ la accuser mbir mi mooy est-ce que def nga wala defoo loolu moo am solo ñaareel bi mooy yow logique na nit ne dañ ma sosal au lieu mu def citation direct nga xam ne bu ñëwee ci yoon tribunal xanaa xam moo day renvoyer ay six fois sept fois balaa muy àtte parfois mu duré fa un parce que seeni intérêt bopp la li ci ëpp bu ñu ñëwee ci kanamu yoon procureur mhm. bu ñu ko demandé réquisitoire maanaam yow lan moo sa xalaat ci mbir mi te pourtant diffamation délit la de yoon a koy tere de te mhm. procureur daf nekk pour aar société bi souvent am lu ñu wax pas d' observation sans rapport procureur day naan man la loolu ah xaw ma ci observation que tellement c' est une affaire privée mais bi yoon nag dafa bàyyi ñu Mame Mbaye Niang def citation directe de dafa plainte ci espace xam nga kañ la Mame Mbaye Niang def plainte hmm. Ousmane Sonko conférence de presse bi mu doon waxee loolu 22 la le la Mame Mbaye Niang def conférence de presse le 23 novembre annoncé plainte hmm. annoncé plainte de waxum ba xam def na ko wala defu ko diggante novembre rek euh, premier février xaw ma 2 février 2 hmm. février diligente nañ fi enquête préliminaire par la DIC convoqué yi ñu ci war a déglu déglu leen mu jeex procureur def def citation directe gaawtu boobu noonu yow jaaxalu la ci période boo xam ne ay nit a ngi commettre ay meurtre trafic de drogue bee ngi am yeneen infraction yoo xam ne day hmm. compromettre la paix sociale l'ordre public yow ngay yàkkamti ci ay dossiers yoo xam ne bu ñëwee sax les gens sont en liberté ban péril moo ci am en la demeure beneen bi mooy ci àdduna bi fépp ay acteur politiques yu naan jël nga lii jëloo lii wala benn nit comme Jérôme Cahuzac France ñu ne la yow évadé fiscal nga ñaata acteur politique français wala ay hommes de médias ñoo ci wax est-ce que na plainte kenn pour loolu un acteur politique surtout nga yor ay deniers publics mais ku boot bukki xaji mbaw la c'est normal ñii di la interpeller ci benn question nan la yaa def wala def loolu l'essentiel mën ko fi mu toll si wàllum politique aussi ku war a moytu la ñëw bàyyi ma raisonné man dafa am fu ma toll maa ko amaana du ma porter plainte mais ko waxee moo xam Ousmane Sonko fi mu toll procureur mi jël parce que xam nga moo def enquête préliminaire. oui maanaam xam nga mënoon nañ bàyyi Mame Mbaye Niang mu defal boppam citation directe bu ñëwee parquet ne sans rapport sama yoon nekku ci. Mhm. mooy procureur ne seen débat politique yooyu. Mhm. man procureur sama yoon nekku ci. Mhm. benn mënoon na ba mu defee enquête préliminaire enquête préliminaire bi jeex mu ne franchement ay poli ay homme politique yi naan diw def nga li def nga li ci loo xam ne ay rapport yu leer la nag sama genre gi dem ci télé wax ci lu leer naññi. Hmm? yéen ñaar tas ngeen débat. ñeneen waaw mais bien sûr. avant débat bi man j'ai parlé du rapport dans un dans un dans dans un dans sur un sur un autre plateau. Mhm. li ma ci wax leeroon na. te sénégalais yi ci biir nit bindoon na ci livre. wax ji nekkul foofu mooy yow pour procureur mhm. jarul ngay dugg ci loolu mais xam nga la mooy dugg bi mu lu ci gën a garaaw mooy nga defal nit ki citation directe mais yemoo ci nga dugal ci nag yeneen infraction mooy leen faux usage de faux injure publique xëy na Mame Mbaye Niang moo ko def Mame Mbaye Niang taxaw na fi ne Sonko dafay dem ci tel lieu wax na ko fi ay wax yu ñaaw yoo xam ne injure publique la carrément est-ce que da dégg président Ousmane Sonko porté plainte parce que naw loowu ko maintenant nag bu ci procureur dugalee faux usage de faux article 137 maanaam contrefaçon wala altération benn document administratif boo def juste pour ñu jox la këyit boo xam ne waroo ko woon am comme nga bëgg tey carte d'identité sénégalais te yow amoo amoo nationalité sénégalaise wala amoo foo war a jëm nga dem benn faux extrait mm-hmm. mais li article liir benn passage ci benn rapport fooy usage de faux la yooyu ay roube la yooyu nag c'est pas des réponses judiciaires avocats yi li ñu ci war a liggéey dañ ko liggéey mais askan wi nañu interpeller su fekkente ne un délinquant boo xam dafa impliqué wu ci benn carnage financier nit ñi ne la yow lii nga def dama nga rendre compte peuple sénégale nga taxaw naan dangay ngay porter waate plainte ci plainte boobu nañu war a basé wu pour ñun gis-gis bu ñu am bëgg-bëgg bi am ci président Ousmane Sonko liggéey bi ñu ci liggéey ay at sacrifice yi ci ñuy def ci seen deret ci seen alal ci leneen ak leneen ci seen vie ci seen liggéey loolu moo nar a tax ba président Ousmane Sonko du bokk ci élection loolu je pense que ñi koy def seen xel daakaar naa ne ils ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. wala dañuy nelaw mais yeewooguñu mais ni nga waxee ni nga waxee ne dafa gaaw enquête préliminaire euh, dafa gaaw ah ndax jàppoon aussi àtte bi mun na gaawee noo xam ne mun neen fi épuiser première instance appel ba cassation nga xam ne balaa deux mille vingt quatre dinañ épuiser tout les voies de recours nga xam ne nii euh, boo leen moytul mun ngeen ñëw dal si ndodd L29 ak L30. wala L30 mënul nekk. mënul nekk mënul nekk bu yoon doxee ni mu war a doxee waaw mooy li am rek gaawaayu enquête bi mënul nekk bu yoon doxee ni mu war a doxee. ah kon bu mënee nekk si enquête kon mën na nekk si àtte. non li ma bëgg a wax mooy maanaam. waaw maanaam. xam nga yoon tënk ko ci ay délai. Mhm. procès bi mu ngi ci kanamu yoon juge bi bu ko neexee bu ko neexee mu renvoyé et cetera bu ko neexee mu jël décision. Mhm. suñu paree affaire mise en état appel et cetera leneen ak leneen. mais bu jaaree procédure normale parce que c' une affaire ordinaire c' est pas une affaire spéciale bu ñuy jugé boo xam ne dafa am chambre bu ñëw te non non lii c' est une affaire ordinaire comme yëpp maanaam jour bi ñu enrôlé procès bi sa mi ngi foon yii ñu renvoyé leen yoo xamante ne ay weer nañ ko renvoyé ñu doog ko àtte ñu mettre leen en délibéré yii ñu ordonné comparution wu tel parti yooyu yoo xam ne dañ koo vidé woon ci même bis bi donc ça veut tout dire ça veut dire que c'est une affaire ordinaire nañ ko bàyyi mu dox comme ni yeneen affaire judiciaire yi di doxee. Mm-hmm. mais nag bu ci amee ay gaawtu yu ci am ak ay laxasaayu yoo xam ne te moo am ci début bi te moo am instant bi pouvoir boo xam ne dafa am benn commande politique am ñu ko ko bëgg a exécuter mais loolu les sénégalais ne vont pas nga gis dans la magistrature ndax da ngay jàpp ne euh, am na si loo xam ne nii c'est contre vous wala da ngay jàpp ne c'est le cours normal des affaires au niveau de la magistrature ak yooyu. il y a beaucoup de choses à dire mais am na loo xam ne du ma ci dugg par respect à mon obligation de réserve. Mhm. du ci dugg. Mhm. parce que loo xam dans le cadre de l'exercice de tes fonctions. Mhm. mënuma cee dugg. mais ce qui est constant. comme résultat du de ce communiqué bi nga xam ne c'est public. acte de nomination boo xam ne dañ ne communiqué bi wane diw nommé nañ ko diw nommé nañ ko yaa décret yi génnagul. loolu. li ñu ciy gis mooy président de la république ba léegi moo téye magistrature bi. Mhm. parce que présence am au conseil supérieur de la magistrature moo ministre de la justice benn. Mhm. ñaareel bi mooy parce que mécanisme yi ñu ko aménagel mu mën a affecté pour nécessité de service loolu dafay compromettre l' indépendance institutionnelle et personnelle des magistrats. d'accord loolu mooy véritablement. Mhm. li ñu ci mën a jàngatee mooy ba léegi président de la république mu daal mooy toog. Euh, direction des services judiciaires préparé moom ministre de la justice ñëw. ñu waajal ñu mën a atte ñu mën a tànn ay magistrats. Mhm. jël kii yóbbu fii jël kii yóbbu fële loolu day compromettre l' indépendance de la da day indi suspicion. Mhm. ci population yi. bu fekkee ñett juge yi yoroon benn dossier ñaan ñi affecté nañ leen alors que instance boobu mi ngi daw te loolu impliqué un acteur politique euh, loolu il faut ñu xoolaat ko. d' accord yooyu nag buy am ba léegi nga bëgg ne nit ñi gëm nañu ne indépendance de la justice mën na am nit ñi duñu ko mën gëm. d' accord léegi jeexalee mbirum Pape Ndiaye euh, suñu confrère journaliste bu ñuy euh, Massawu. Euh, fu mu toll nii euh, am na retour de parquet tey si euh, xibaar yi nga xam te ne am na ko am nañ ko bokk na si li nga koy toppee moom mooy diffusion de fausses nouvelles ak tam wax ay kàddu yoo xam te ni mun na xotti war ma magistrature bi ndax jàpp nga ne si li mu wax. Eh, si mbirum eh, ordonnance eh, pas ordonnance de renvoi mais réquisitoire définitive bi nga xam te ni parquet defoon na ko. Mm-hmm. jàpp ne am na dix neuf substituts yoo xam ne ànd si woon ndax jàpp nga ne loolu noonu yell na pour ñu toppi ab journaliste diffusion de fausse nouvelle. waaw toppee journaliste diffusion de fausse nouvelle rek mooy wane Sénégal fi mu toll ci démocratie mais ci tradition judiciaire bi ñu am su ma nee ci démocratie mm-hmm. mooy journaliste bi nga xam suba ba ngoon day wax maanaam mun na sax xëy wax loo xam da cee juum mm-hmm. benn. li mu wax ku mu neex gëm ku mu neex bañ a gëm information la joxe yow autorité bi nga xam yaa autorité bi soit da ngay def un communiqué wala nga bàyyi mu jàll parce que en réalité wax ji ban incident la am ci pro ci procédure judiciaire bi parce que procureur ay substitut déglu ma déglu ma pare ma maanaam procureur mhm. ay substitut am ci mhm. moom lañ topp mhm. substitut yëpp buñ d'accord buñ d'accordoon ne lii la moom mën na gis leneen waxam moo am solo du dëgg donc loolu amul incident ah, amul benn incidence ci fi ñu jëm muy benn ñaareel bi mooy su ma nee dans la tradition judiciaire mooy Sénégal procureur dañ ko fi jox ay doole yu jéggi dayoo article 32 bu code de procédure pénale daf ko jox lu ñuy wax moom mooy apprécier mooy recevoir plainte yi mhm. mais ak dénonciation yi mooy apprécier la suite à leur donnée mhm. loolu mooy lan dañ ko may opportunité des poursuites parce que mhm. y a deux systèmes am na système boo xam ne c'est système de légalité des poursuites la parce que am na loo xam ne jarul topp ay ay infraction vénielle la wala infraction boo ko toppee day gën a troubler l'ordre public foofu laajul topp donc bu ñu nekkee système boo xam ne Sénégal nag dañoo jël opportunité de poursuite maanaam procureur hmm. may nañ la infraction ba am nga ne non du ma ko topp parce que amalul njëriñ nit ñi yow boo ci nekkee foofu chef de parquet ci benn tribunal de grande instance bu mel ni Dakar infraction yi fii am affaire yi nu mu bëree dossiers yi benn journaliste buy wax fële nga nga koy topp diffusion de fausses nouvelles c'est contre-productif amul benn sens amul benn sens li may ñaawlu aussi mooy retour de parquet yi li mu wax da ko wax mu leer su fekkee da ngaa jàpp ne def na benn yoon la koy dig di déglu euh, wala wala sûreté urbaine bu paree li muy def day yóbbu day yóbbu. yóbbu ko flagrant délit ah, bu dee dañ koy yóbbu flagrant délit li ñuy wax ba xam li mu def def na wala def. que ñu ngi sax mën na am information judiciaire. maanaam pour man sax le règlement le plus approprié la citation directe c'est-à-dire mënoon nañ ko woolu mu ñëw ñu déglu ko ba mu wax. mu nekk mu mu ñëw si procureur sous forme de PV de renseignement judiciaire nga xam ne le gars kenn mettre ko la disposition du procureur c'est-à-dire kenn conduite amul arrestation amul défer déferment amut kon renseignement judiciaire la procureur gis ne yow yaa wax lii kaay nga wax ci kanamu yoon fan nga ko teg maanaam citation directe mais dans le mode de règlement rek. Mhm. téye ko téye ko commissariat central ñaar ba ñetti fan mu ñëwaat nga def retour de parquet. muy mu ñëw tribunal ba ngoon ñu ne la ñibbi waatal yooyu yëpp day wane ne xoqatal moo ko tax a jug man loolu laa gisee. diffusion de fausse nouvelle mooy lan mooy wax lu wérut wala gën naa xóot lool. waaw diffusion de fausse nouvelle mooy comme ni nga wax tasaare parce que dañ ne diffusion publication am na beneen notion bu fi tegu mais diffusion publication reproduction. Hmm. de nouvelles yoo xamante ne amuloo foo ko teg te nag mu mën a indi ay incidents ci ordre public bi wala ba tax nit ñi cër bi ñu jox institution yi leen ko jox. et cetera yooyu ay infraction yoo xam dafa war a dëñ ci état boo xam ne c'est dit il se démocratique c'est l'article du code pénal mieux encore li ñu war a ñaawlu nag foofu bëgg naa ñu taxaw lu fa mooy mhm. article 139 bu code de procédure pénale mhm. dafa may procureur doole yu jéggi dayoo ci diffusion de fausses nouvelles moo waral ku jug ci leader de dépôt da ngay tëdd ah, de fausses le mandat de dépôt il est systématique c'est le cas des articles cinquante six à cent ay atteinte contre la sûreté de l'État yooyu procureur bu demander mandat de dépôt day obligé wu mieux encore en cours d'instruction mm-hmm. boo defee demande de mise en liberté provisoire mm-hmm. procureur xam nga bu demande bi ñëwee daf juge d'instruction day def ordonnance de communication ne ko mm-hmm. lan mooy sa xalaat ci demande bi procureur mën na wax ne may ko wala mu ne bu ko may wala mu ne juge bi loo décidé laa demande elle est irrécevable c'est-à-dire yow juge bi du xool sax le bien fondé de ta demande. est-ce que yow. procureur bu waxoo ne damaa feebar. ba mënu ma nekk hôpital wala man déglu woon nañ ma au fond donc dossier bi am ngeen ci assez d'éléments wala man telle telle chose laay layee et cetera. c'est le cas aussi boo nekkee sous contrôle judiciaire wala. non non kenn wala bokkul. non non boo nekkee sous contrôle judiciaire par exemple nga bëgg a jënd si réew bokkul. non non non non non de ko jëlee ci code napoléonien bu bu boo ay. ay ay ay code code pénal la yoo xam ne 1812 la woon. waaw boobu ba léegi mën na 200 ans. c'est vrai nga xam ne da boobu pouvoir bi royauté moo delluwaatoon France. Mm-hmm. pour noot ñi ñi ci liberté parce que révolution française amoon na accueil yu mm-hmm. démocratique yi fa amoon. Mm-hmm. mais mieux encore. parfois sax bi ñu koy def contre les infra pour les infractions contre la sûreté de l'État dañ jàpp ne loo xam ne sécurité état la laal. procureur nañ ko ci may ay doole pour bu demander parce que moom comme dafa dépendre ci ministre de la justice. kooku dépendre ci ko respecter. loolu la xam nga bu ñu demoon ay terrorisme wala yenn fee grave yi. Mhm. wala koo xam ne jugoon pour renverser nguur wala insurrection mu leer. Mhm. genre yooyu sax mën nañu ko si maintenir. mais ay diffusion de fausses nouvelles ak ay hmm. participation à des manifestations non autorisées yooyu est-ce que mën nañ ci jël nit hmm. franchement privé ko de liberté ci loo xam ne li mu wax leer na nga mën ko traduire mu ñëw si kanamu yoon yoon àtte ko ci loo xam ne jarul woon sax topp aussi jërëjëf maître Ngagne Demba Touré amoon naa mbégte lool dalal la tolluwaay mu bàyyi la nga déggal ma naan tolluwaay sax <laughs> c'est spécial bi mu bàyyi la nga te euh, nga tàggatoo ñu doon teewal waaw mais Diallo kontaan naa trop hmm. waaw kontaan naa trop ci dalal bi et rafetlu aussi débat yu euh, sujet yu ñu abordé bëri na yu ma bett lool. Mhm. yoo xamante ne <laughs> franchement abordé nañ ko te mu nekk lu am solo. Mhm. yoo xam ne laal na géopolitique loo xam ne laal na politique intérieur loo xam ne laal na question judiciaire ma jàpp ne xëy na amal na Sénégalais yi ko doon suivre. lépp lu ciy jumte peut-être ñu ngi cay jégalu bu baax a baax. xam nga ñu ngi ko doon wax sànq. maa ngi doon naan il fallait un communiqué officiel venant du gouvernement. Hmm. Euh, Pao Marketa moom ko yónnee léegi dans une lettre lettre ouverte publiée par dans euh, par la presse. Euh, l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré a adressé quatre questions à monsieur le président de la République euh, insinuant en particulier un don financier qu'il aurait euh, fait à madame Marine Le Pen le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations lâches et sans fondement qui témoigne manifestement d'une volonté euh, maléfique de jeter le discrédit euh, sur la personne du président de la République, euh, porter atteinte à l'institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance euh, étrangère. Le gouvernement rappelle vigoureusement qu'il se réserve le droit de donner euh, tout toute suite qu'il juge approprié à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de haute fonction étatique mooy la réponse du gouvernement par rapport aux questions de am naa raison ci li ma doon wax c'est-à-dire Birame Faye bi doon wax nekkul woon ko habilité pour wax léegi communiqué bi kan moo ko def. le porte-parole du gouvernement. waaw ñun interpellé wuñ gouvernement bi le gouvernement est une institution le président de la république est une institution selon l'article six de la constitution président de la république ne expliqué wu ci kanamu sénégalais mais quand le ministre du de la communique de la consommation et des petites et moyennes entreprises porte-parole du gouvernement Abdou Karim c'est pas le gouvernement est différent mais gouvernement bi mën na démissionner gouvernement mën na démissionner chef d'État di continuer di exercer ay pouvoir am le gouvernement dafa différent de de de de de la du président donc du président la présidence c'est une administration mhm. mais le président la est une institution oui Marine Le Pen ñëw fa participer ci ça ne concerne pas le gouvernement ça n'engage point le gouvernement. taxawul lii tey maanaam maanaam lu ma wax ne bu amoon sax. Mhm. mais euh, mun ñun ñun amuñ pour exiger gouvernement mu démissionner amuñu pour di wax aussi. Mhm. Abdou Karim Fofana def nga ko wala defoo ko yoonam yoonu Abdou Karim Fofana nekku fi en tant que porte-parole du gouvernement ça n'engage pas le gouvernement. mais ñu ngi wax tamit ay poursuites maanaam bu nekkee ne ñoom jugé a àgg foofu. ah franchement loolu mooy li ma la wax rek. maanaam la judiciarisation de l' espace politique c'est-à-dire politique bu wax. Mhm. chaque jour ñu ngi takk ay laboratoire yoo xam ne li nga wax ñaar nañ ciy def soit dagg wax ji dem diaboliser la ci famille religieuse yi ak yenn cercle d' influence ci Sénégal. Mhm. wala jël sa wax nag am lu ñu ci reproché jërëjëf ma topp ci yoon. merci amoon naa mbégte lool dalal la euh, si entretien spécial bi sant leen gërëm leen yéen doon teewlu euh, su ma jugee rek incha allah Pape Omar Keita moom mooy ñëw pour euh, football waxtaan ak yéen si tolluwaayu football rawatina si ndam bi nga xamante ni U20 yi am nañ ko war a dem final war a am li nga xamante ni moom mooy ndam loolu la ñuy souhaité si Coupe d'Afrique u moom la ñuy jongante sant leen gërëm Omar Samb ak Modou bi su ma jugee léegi incha allah Pape Omar Keita suba 8h ba suñu programme jaa jëf.